asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam amaat contentement ak mbégte dalalaat leen seen biir kër Kër Jaraaf comme ni koy defee tous les samedis à partir de 21h sur la 7 TV fas yéene gunge leen waxtaane actualité et comme tous les samedis dama ci am dama am contentement ak mbégte di ci ànd ki nga xamante ne moom mooy sama turandoo Adja Bité turandoo maa ngi lay nuyu di la dalal ci plateau bi. jërëjëf turandoo yow tam maa ngi lay nuyu. Mm-hmm. Eh, di la ziar di rafetlu saa saa su ne chaque samedi 28 ans ni ñuy dalalee sa plateau di nuyu di ziar di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom ñoo safoo sunuy programme rawatina émission bu mag bi di Kër Jaraaf. mi ngi noonu émission bu mag bi nga xamante ne moom mooy euh, Kër Jaraaf émission yoo xamante ne ci waxtaanee lépp loo xamante ne euh, soxal na leen rawatina nag wàllum actualité alors te nag turando euh, yan ponk lañu fas yéene waxtaanee biir Kër Jaraaf. dañ koy tàmbali ak waxtaan bi nga xamante ne moom njiitu réew mi Macky Sall war na ko séq ak ki ñoñam ñu koy xaarandi xool nag ci kan. lay tabb li nga xamante ne moom mooy choix am di xëy na mbër bi nga xamante ni moom lay ngemb mu jëm ci joŋante présidentielle yi ñu nam ci février ci atum 2024 euh, balaa ñuy nag jëm ci loolu gis nañ ne ñenn ci ay alliés wala sax ci biir parti bi nga xamante ne moom bokk na ci am nañ ñu ci déjà yëkkati seen loxo loolu yëpp tey dinañ ko waxtaanee ak ëllëgu li nga xamante ne moom mooy seen coalition di Benno Bokk Yaakaar wala sax euh, la grande majorité présidentielle bu fekkee ne moom Macky Sall ñi ngi xaaral xaarandi mu wax keneen moom wax na muy Ousmane Sonko ndax. tey ji samedi ji dañu waroon amal ab euh, cérémonie d'investiture ginnaaw bi nga xamante ne waxtaan nañ seen biir def seen potum biir la ëpp ca majorité ba ñoom la ñuy jox bopp def ko itam seen bër mu ne nag nañu ko ajandi waaye gis nañ yeneen euh, trouvailles yoo xamante ne am na ko lu ci mel ne concert de casserole gis nañ ko sànq euh, balaa ñuy tàmbali li nga xamante ne moom mooy bile émission dinañ signewaat ndax gis nañ ne ñaar ci ñu toftal ci ñoom jamono ji Euh, ñu ngi ci euh, kaso yi maanaam caabi daf leen féete gannaaw loolu mooy ëllëg bu Pastef ndax jotul euh, ñu ut euh, beneen alternative à Ousmane Sonko wala ba léegi Ousmane Sonko moom mooy nekk euh, seen mbër dinañ ci waxtaan dinañ ci xuus ci ni mu gën a yaatoo dinañu dellu siwaat itam ci kenn ci ku koy layal di Juan Branco gis nañ ne démb procureur daal dinay lancé ab mandat d'arrêt international loolu yëpp bu ci xajee dinañ si dellu siwaat waaye aussi dinañ teg suñu baaraam turandoo ci benn mbir ñu nemmeeku ne ci réseau sociaux yi bu ñu recensé ñi yëkkateegum seen loxo jëm ci jongante présidentielle yooyu toll nañ ci ñeent fukk ak ñetti candidat kandidaa à la candidature mhm. loolu nag tax ñu sampaat beneen laaj waaw lu waral regain d'intérêt boobu wala dafa am leneen loo xamante ne moom moo ci làqu mhm. balaa ñuy ndar képp dinañu ñëwaat wala sax balaa ñuy tàmbali euh, faa ñu tegaat baaraam ci doomu Sénégal yi ñàkk seen bakken ndax mhm. am yaakaar xëy na seen ëllëg tekki fële ca bitim réew dinañ si ñëwaat waxtaan ci jamono jooj tamit am na yeneen ndaw rawatina jigéen ñi wane seen bopp lool ci premier sésame bi nga xamante ne moo leen di yóbbu université muy baccalauréat bi ndax d'ailleurs taux bi xam nañ ko mu ngi toll ci 55 pour cent ñoo xamante ne déjà jàll nañ ci premier tour bi ak ñoo xamante ne dañoo admissible ci ñaareelu wërngël bi mhm. donc ñu ñu ciy profité dinañ félicité bu baax a baax waaye laata ñuy gën a xuus ci loolu dañuy dalal gan yi nga xamante ne ñoom lañ fas yéene euh, sekk waxtaan bi comme ni ñu koy defee euh, à chaque fois dañuy invité ñoo xamante ne euh, seen xam-xam màcc na ci li nga xamante ne moom lañ fas yéene waxtaanee alors ku ñuy njëkk a dalal nag euh, moom nag mi ngi tudd Sori Kaba nekk ancien directeur des Sénégalais de l'extérieur dalal nañ ko temps yee passé donc Sori Kaba yow it ñu ngi am contentement ak mbégte dalal laat la ci plateau Kër Jaraaf. jërëjëf soxna Adja maa ngi lay nuyu. di la gërëm di la sant ci dalal bi. Mm-hmm. di nuyu di nuyu toute l'équipe de 7TV ci invitation bi nga xamante ne moom ngeen ma ormale tey di nuyu également doyen Assane ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom lañu ñu bokkal plateau bi. Mhm, mais di beral nuyoo ñi nga xamante ne ñoo ñuy suivre tey ci ngoon si nii. Mhm. Hmm. ñu ngi lay jaajëfal euh, bu baax a baax euh, donc euh, ki nga xamante ne moom la fa yéene sekk ak waxtaan wi alors mi ngi fi woon samedi passé waaye ñëwaat na tey itamit kooku nag moom mooy Pape Moussa Sow nekk journaliste consultant en droit des affaires Pape Moussa yow it ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau bi. jëf euh, soxna Adja Astou maa ngi lay nuyu di nuyu Adja bi tey moom ak fu mu sore sori sama mbokk Saalum Saalum la <laughs> bi tey moom <laughs> <laughs> maa ngi koy nuyu bu baax euh, di nuyu doyen Assane mhm. di rafetlu taxawaayam mais aussi le DG Kaba di ko nuyu di nuyu sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi ñuy suivre ci réew mi ak ci bitim réew di ñaan yàlla rek lépp lu luñ ci waxtaanee doon njëriñu askan wi asalaamaaleykum wa rahmatullah allahuma mi ñu ngi koy ñaan itamit euh, alors comme tous les samedis maa ngi fay avec Kaolack maire maire ba maire mu ne xanaa kii mooy a bay ñaareel bi <laughs> merci Adja ñu ngi lay fay nuyoo di ziar bu baax vraiment am kontaan te ñëwaat Kër Jaraaf di nuyu tamit Adja bi tey ñuy nag suñu invité nga xam ne dugg leen vraiment ñu ñëw si émission bi ki nga xamante ni mooy excellence Sori Kaba di ko ziar bu baax a baax di nuyu Pa Moussa di am mbégte vraiment recevoir leen tey di nuyu nag sénégalais yi bu baax a baax ñëwaat rek ci débat yi <laughs> comme niñ ko faral di defee vraiment feedback bi ñu am ci ñoom écho bi c'est très positif euh, keroog rek benn imaam may woo imaam Gaye de nii vraiment bu bëggee xam lu leer ak chaque fois <laughs> day dem Kër Jaraaf euh, di ñu di ñu suivre pour rek am point de vue yu yu baax ci li nga xamante ne mooy actualité bi parce que jàpp ni léegi ku nekk day wax te wax dëgg yàlla affaire yi dafa jaxasoo ci xel yi <laughs> te ko dafa bëgg toujours di am ay xalaat yu te da koy amee toujours alhamdulilah ci Kër Jaraaf donc ñu ngi koy sant di sant nag ñëpp ñu am confiance si ñun comme moom. Mm-hmm. Euh, vraiment ci ni ñuy décortiquer actualité bi di ko gërëme tamit suñuy invité. Mm-hmm. parce que ñoom tamit seen participation seen apport. Mm-hmm. mënuñu leen a mënuñu leen a fay. en tout cas merci beaucoup c'est un plaisir <laughs> d'être là <laughs> voilà. alors euh, Tourando ñu daal di xuus euh, ci ci biir waxtaan wi rek sànq fi nga daanale foofu lay tàmbali parce que yaa ngi doon wax waxu ndaw ñi mu nekk loo xamante ne nga jamono ji euh, dafa mel ni comme euh, dañoo dañ leen changé complètement ndaxte ni ñuy doxalee euh, surtout côté violence bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko gis nañ ko mi ngi am ci biir réew mi waaye aussi li ngay wax jeunes yi nga xamante ne tamit ñu ngi jël gaal gi di dem fi nga xamante ne moom mooy Europe loo xamante ne daanaka à un moment donné wàññeeku woon na bu baax a baax mais là dafa mel ni comme dafa gën a takkarnaasi alors euh, dañ koy tàmbale ni nga ko waxee Adja Assou ak euh, incident bi nga xamante ne. Mhm. malheureux mun nañ ko qualifier noonu. bi xew fële euh, ca hôpital bu Amadou Sakhine Ndiéguène mhm. bu cees ndax dafa am benn jakartamaan mhm. ab ndaw la. Euh, buy daan dooleem ci wàllu dem beeg dikk bi mu amoon accident bi ma amee accident. mu dem fële nga xamante ne moom mooy hôpital régional bi. bi mu demee nag euh, mu ñu hospitalisé ko malheureusement ñàkk ba kenn waaye dañu gis ne automatiquement ndaw yi dañu jóg. Mm-hmm. dem attaqué li nga xamante ne moom mooy infrastructure sanitaire boobu. Mm-hmm. attaqué sax ba attaqué ñi nga xamante ne ñoom ñooy personnel bi gis nañ ci média yëpp ki nga xamante ne moom mooy directeur bi muy yëkkati kàddu. Mm-hmm. waaye loolu du benn fee bu isolé rek directeur yow lañ koy njëkkee dañu gis ne léegi Sénégal. la plupart du temps léegi dañu bugg rek lépp lu ñuy lijjanti lépp lu ñuy régler dañ koy régler ci xët-xët ci doole euh, lu ci mel ni hôpital boo xamante ne ñëpp fa la ñuy fajoo ay malaat aussi nekk fa est-ce que waruñu tomber d'accord ci yenn yoo xamante ne yenn lieux yoo xamante ne dafay nekk ay lieux sacré ba kenn du ko ñemee euh, violer surtout lu ci mel ni hôpital ak dëkk bi ñu nekk ak déficit bi ñu am. <coughs> jërëjëf soxna soxna Adja maa ngi lay gërëm di la sant encore une fois de plus. Mm-hmm. Euh, di rafetlu comme ni ko grand Assane waxee. dayo bi nga xam ne Kër Jaraaf am na ko yaakaar bi nga xamante ne ñëpp ñi koy suivre am nañu ko à chaque fois boo xamante ne actualité bi évolué na ngeen poser un débat de fonds te question bi nga posé wane na ko man dama jàpp ni réew ndaw ñi ñoom ñoo war a assurer son avenir fi ñu leen di xaar li ci ëpp mm-hmm. mooy éducation bu exemplaire formation de qualité pour que ëllëg ñu mën a nekk ay mag yoo xamante ne dañ leen di roy parce que nag tey suñu réew mi je pense que ay mag yu ñu fa war a roy manqué wu fi mais mag ñooñu nekkoon nañ ay gone te balaa ñuy nekk mag am na fu ñu jaar parcours initiative boobu nag man jàpp naa ni bu sooxee rek suñu ëllëg dana doy waax moo tax daf ñuy interpeller ñu ñëpp tant que nous sommes ñuy père de famille ñuy mère de famille ñuy imam ñuy chef de quartier ñuy directeur général ñuy ministre ñuy président de la république la question citoyenne dañ ko war a intégrer dans ce que nous faisons au quotidien parce que nag loolu ñun dañ leen ko yoreel ñoom ndaw ñi parce que bu fekkente ne tey réew toll na foo xamante ne jàppuñu lu dul violence moom la ñu war a mën a exprimer sa opinion réew moomu moom xamatuma ci dara moo tax il faut qu'on restaure nos grandes valeurs parce que loolu mooy suñu njariñ et comme ni nga ko waxee lu mel ni hôpital dal la laaj jàmm la laaj bañ nañ ko ba sax hôpitaux yi nga xamante ne wala centre de santé yi nga xamante dañ leen di wooyee dalal jàmm boo koy xool fréquentation bi dafay bari parce que jàpp nañu ne jàmm rek moo fa mën am. boo rombee sax waroo klaxonné. waroo sax klaxonné mhm. te yooyu yëpp c'est des considérations citoyennes yoo xamante ne dañ ko war a intégrer dès le bas moo tax. je pense que jamono yële maa ngi dégg au niveau du ministère de l'éducation nationale ñuy poser ay questions de fond sur le curricula maanaam le contenu de l'enseignement bi ñuy jox gone yi je pense qu'il y a des choses à interroger eh man je considère que euh, amoon na ay jamono par exemple on faisait des cours sur le sur le civique national le service national service civique national je sais plus ni ñu ko doon wooyee mais y avait éducation civique y avait un cours sur mm-hmm. ñu lay jàngal le drapeau symbole bi mu doon ñu lay jàngal les ñu lay jàngal le le le lion njariñ bi mu am ci Sénégal ak li muy représenté mu nekk ay affaires yoo xamante ne c'est des valeurs qu'on intègre dès le bas mais bu faussé rek je pense que lii lay andi mhm. alors mu nekk situation bu doy waar euh, par Moussa parce que dañoo wax ni que euh, l'avenir d'un pays c'est la jeunesse et gis nañ ni que jeunesse Sénégal maa ngi koy wax sànq bi may euh, commencer on sait plus comment en fait xamatuñu Euh, lii yëpp lan moo ko indi yow tey jeune nga yaa ngi jànkonteel ak jeunes yi euh, tous les jours gis nga ni ñuy doxalee ak yooyu euh, tey suñu continuer nii réew mi fu mu jëm ak surtout yenn comportement yi nii yow ci sa gis-gis nga yaakaar lan moo ko indi. bu ñuy xool les causes xam naa dina multiforme dina multisectoriel xam nga tey actuellement. Euh, yaa ngi koy wax président Wade da ko doon wax mu ne dis-moi quelle jeunesse tu as. Mhm. je te dirai quel pays sera seras. Sénégal euh, ñi am euh, pres prospective di xool ci kanam. Mhm. ñi su bëri tiit nañ. ci ëllëgu Sénégal. Eh par rapport ak comportement bi nga xamante ne yaa ngi koy gis. et que euh, les prémices surtout de la violence cest dire même même verbal oui, même pour parler nii rek da ngay sentir ne les gens sont de plus en plus violents mm -hmm. conjoncture la éducation la orientation la mais manque de repère la surtout parce que euh, Youssou Ndour nee na xale yaa ngi jooy waaye mag ñee leen tiital à ah, parfois à des niveau insoupçonnés de responsabilité da nga ciy dégg yenn violence verbale boo xamante ne mais da ngay laajte léegi xale bi nga xamante ne mi ngi xool lii nii Euh, ban ban ban euh, exemple la koy jot donc le sens de l'exemplarité bi nga xamante ne euh, démb man par exemple bi may jóg ne damay jàngi droit dama doon xool le président Kéba Mbaye mu servir mhm. mhm. di gis de l'éthique di gis ay ay ay Isaac Foster c'est-à-dire des gens yoo xamante ne bu ñu génnee wax effectivement yow dangay ngay bëgg a mel ni ñoom mhm. malheureusement tey Sénégal euh, surtout avec la floraison des réseaux sociaux finalement euh, koy wax mhm. tout le monde a droit au chapitre média social donc ku nekk télé ci poste ku nekk yor nga sa télé bopp yor la neex et que euh, mu nekk espace bu dématérialisé boo xamante ne xale bi mi ngi toog ci biir néegam yore youtube am amul filtre amul dara di xool lu ne est-ce que loolu aussi nguur gi amul ci euh, part de responsabilité les, les responsabilités sont partagées mm -hmm. mais le responsable n'est pas forcément le coupable mm -hmm. l'état est responsable mhm. mais l'état n'est pas coupable parce que am na yenn mbir yoo xamante ne pour man euh, cëslaay bi ci biir kër gi la mhm. question d'éducation oui. l'éducation ñu euh, nit malheureusement on a un système d'enseignement Mm-hmm. ministère de l'enseignement mais amuñu système d'éducation mm-hmm. alors que eh, eh, enseignement mooy nga def nit ki xam-xam nit mën nga am xam-xam nag te doo am mal axlaa maanaam jikko ju rafet mm-hmm. donc loolu nag moom buy buy dem ba euh, ngay gis euh, ñuy attaquer des hôpitaux ça veut dire que le mal est profond eh foog ñu def nag diagnostic sans complaisance des tares qui gangrènent le tissu social malheureusement bu ñuy toog ci euh, plateau yi les gens parlent de la crise politique la crise mais la crise sociale elle est plus profonde te loolu foog naa ne moom mooy soubassement lépp li ngay gis parce que ñi ngay wax au-dessus ci biir état ci biir politique ci biir leneen ce sont des compo ay composants société bi lañ mm-hmm. kon société bi moom moo feebar Serigne Mor Mbaye doon na wax ne foog ñu rebâtir mm-hmm. l'homo sénégalensis tëggaat sénégalais. parce que ah, yenn saa yi da ngay gis euh, surtout les violences yi récemment fii ngay gis ay jëf yoo xam ne da nga naan ñii ndax sénégalais la. c'est-à-dire nga gis policier bu tëdd gis nit di yellu brique di ko ko yenn. un sénégalais comme yow. waaw nga yëkkati nga yëkkati brique. tiimale ko ko tiimale ko ba pare les aussi di partager ces images là. Mm-hmm. comme si parfois on on en est fier. alors hôpital. bon on di que la foule elle est folle ça c'est clair mais euh, am na foo xamante ne boo fa waree ba yegg sax sa yaram daw. ndax boo musul feebar it parce que gis ku feebar. donc kon euh, manque manque manque de sentimentale sensibilité. bi nit ñi di am voilà ba pare di tiim nit ñi di ko dóor birig ci bopp. Mm-hmm. yow sa yoon newu ci. ben ça dire que ni le mal est profond te nag. wax dëgg yàlla loolu sociologue yi. maa ngi ciy woo sama professeur ñoom docteur Djibi Diakhaté ak le psychologues ñu def euh, des analyses profondes diagnostic carrément ci biir ci lan mooy l'homo sénégalensis maintenant mhm. ak fan lañu bëgg a jëm parce que jàpp naa ne ëllëgub Sénégal bu dee cette jeunesse là may gis ni moo ko nar a yor et surtout quelle serait la solution c'est justement état nag am ci responsabilité kër gi am ci responsabilité mhm. télé yi les médias surtout am ci une très grande part de responsabilité mhm. parce que ñi ci ëpp it ils sont à la de buzz de clics de vues ba fàtte ne responsabilité bi nga xamante ne ñoom lañ am ci société bi. absolument alors Aladja Assane euh, par rapport à cette violence là euh, ni ko euh, Pape Moussa waxee mi ngi ci kër yi mi ngi ci discours politique bi discours politique bi moom mm. n'en parlons même pas réseaux sociaux yi. ñi les insulteurs comment les appelle les insulteurs de la République ñoom la seen vue yi di di aju ci kaw internet bi réseaux sociaux yi mm. ay waxtaan ay cas gis nga Alaaji Assane wax na ak Adja asso est-ce que lii est-ce que lii cest à ay détails yoo xamante ne dem nañ ba léegi dañu raté l'essentiel léegi nag euh, conséquences yi mooy moment bi on a vu des jeunes qui sont désespérés cest à dem ñàkk seen bakken ci ndox mi sax moo leen gënal ñu toog seen dëkk ndax amatuñ espoir ci ci ci ci ci seen dëkk. Hmm. Euh, déjà yow ban jàngat nga ci def ak xëy na ban saafara lañ ci war a mun a. ut waaw jërëjëf Adja. man dama nekk koo xam ni partisan la ou responsabilité pénale mhm. cest à man dama jàpp ni euh, saa boo choisiree infraction nit ñi ne si jàmm yow nga tànn infraction ça veut dire que da nga tànn la peine gis nga nit boo ko mettre en situation ku man di doon muy man muy keneen bu amul dara lu mu ragal rek lu ko neex def te on a ce problème là c'est-à-dire que de plus en plus dañoo jël instaurer benn culture de la démocratie loolu baax na mm-hmm. ñu élever que au rang de sacerdoce genre religion mm-hmm. démocratique ku si nekk jàpp ni man ak yow ñooy am ñooy am ay droit si réew mi yooyu c'est bien alors que ñun suñu société suñu tradition société bi des dafa amoon stratification sociale dafa amoon ay règles dañuy wax kii kilifa la kii doo ko def nii kii ñu mewoo lii lii war nga ko def lii waroo ko def léegi ku si nekk ci ñun dañu jàpp ne avec la démocratie ak la liberté am nga droit yow def lu la neex am nga droit wax lu la neex te ñu jàpp en même temps ni à partir de ce moment autorités yi boo tàngalul boo tàngalul defoo dara duñ la régler sa problème léegi nag ku ci nekk jàpp ni tàngal boobu moo lay may solution muy sama village muy beneen dëkk muy quartier ñun bi ñu amee problème ndox xale yi dañ leen mujj tëj. Mhm. parce que dañu dem dagg toj fa forage F F16 bi nekkoon suñu suñu wetu kër. toj ko pour que autorité yi réagir donc yooyu. man ma ma ma ma ma ma de ma ñëwaat ci la ma waxoon sànq le principe de la responsabilité pénale xam nga lu mu tekki boo choisir infraction viol eh, sàcc wala gaañ nit wala rey nit yow da nga choisir kaso da nga choisir la sanction pénale te bu ñu nooyee ci sanction yi à partir de ce moment là nit ñi dañuy gën a chaque fois am fit ci li ñuy def te loolu moom moo ñu topp nii euh, ni ni ñuy réagir dafa dafa faible Thiès dama jël exemple bi nga wax l'hôpital mm-hmm. ñun ñëpp dañu déplorer li xew mm-hmm. mais Thiès ban dëkk moo ko gën a am <laughs> police gendarmerie armée et tout et tout et comment des jeunes ñi mee taxaw dugg ci organiser wu dugg ci hôpital bu toll noonu def fa la ñuy def te te te te te faraluñ leen seen i dàll te faraluñ leen seen i dàll laay wax de kenn dootu ko ñeme boobaa kenn. à dire ñu par exemple bi mais mais il faut être ferme. ce que vous croyez que nit ñi da leen di gérer ak ay oui c'est pas bien oui tu sais mais non mais non il faut être quand il faut être ferme il faut être ferme avec les gens. parce que am na ñoo xam ni ay affaire ay théorie ay c'est c'est pas leur problème nit ki il faut mu am lu mu ragal pourquoi suñu boroom wax àjjana wax safara pourquoi pourquoi mu indi la peur di jaanama parce que xam na nit moo gën a moo bind nit oui ou mm-hmm. su su la bàyyi woon tey jaanama amul safara amul kon nan la ñuy dundee en société tey cër boobu il faut mu am dans une société ñu tekk nag ci yoon nit ñi effectivement le système sanitaire xoolaat boppam parce que y a beaucoup de choses boo amul xaalis doo fajo y a un problème euh, paj mi f euh, metti na euh, ordonnance yi metti na corruption bi dans le système de santé c'est une réalité yooyu buñ ko diagnostiqué ba pare ñu reste ferme man dama jàpp ni un groupe de jeunes bu organisé wu attaque un tribunal mais seeni daal dañ leen ko war a foral. te on se amoon na fi à Louga. non non je je bien mes mots. et tant qu'on faible tant qu'on faible bu ñu xam fu ñu jëm. d'accord parce que société démocratie dafay ànd ak fermeté xamul nga tax la loi loi sans sanction de loi. loi sans force. on du <laughs> loi. Euh, sanction bi nga xamante ne war na àndal. yaa voilà léegi nag la force sans le droit. tyrannie la. c'est vrai qu'on dénonce la tyrannie. Mm-hmm. Mm-hmm. mais la loi sans la force n'est rien. te ñun problème boobu lañ commencé am le manque d'autorité. Mm-hmm. on a problème d'autorité. parce que euh, à partir du moment où segment société yi. les individuellement et collectivement les gens croient que à partir euh, dañu war a chaque fois wax lu la neex def li nga ne peut-être daan leen si fekk mais dañuy continuer <laughs> loolu laa yokk nag par rapport ak diagnostic yi nga xam ne invité yi def nañ ko nga xam ne c'est exact mm-hmm. tout le revoir tout le système d'éducation les institutions civiques mm-hmm. rééduquer les gens tout ça c'est je suis d'accord mais à côté il faut que on reste ferme ñu xam ne on est en société quand les gens choisissent d'être délinquants il faut que ñu ñu ñu sanctionner leen loolu aussi est fermement mhm. d'accord voilà. euh, alors directeur euh, on dirait que le mal il est euh, très profond ici au Sénégal par rapport à la jeunesse sànq Adja mi ngi koy euh, wax Alaaji Assane euh, tey jeunes yi nga xamante ne euh, ñu ngi jël di risque seeni ay bakkan ay jigéen yor seeni ay doom ay jeunes xale yu ndaw ñuy dem di jël gaal gi pour wutee dem fi nga xamante moom mooy euh, en Europe ñu bëggoon xam tey euh, gouvernement bi fan la yeex ci politique de la jeunesse am ba tey mu leen di jaral yi yow mii nga xamante ne nekkoon nga le directeur des Sénégalais de l'extérieur ñàkkul xëy na am na ñoo xamante ne jël nañu yoonu gaal gi euh, parce que je ma rappelle il y quelques années bi ma la invité sur un plateau à la RTS on en avait parlé parce que dafa bari woon période boobu noonu aussi ñoo xamante ne waxtaan nga ak ñoom ba xam exactement ñoom lan moo leen di yóbbee ci yenn yi ba mu leen di jaral ñàkk seeni bakkan pour rien que dem euh, fi nga xam ne mooy Tugal. Mhm. waaw je je pense que li ñu jot a évoqué tout à l'heure mhm. am na relation de cause à effet. Ouais. ak ce phénomène migratoire bi nga xamante ne. Mhm. il continue ou elle continue à faire du mal. parce que jeunesse bi dañu jàpp ni euh, dans notre société moom la Pape Moussa wax léegi te ànd na ceeg moom nos repères nos références daf ci bokk nga nekk bitim réew ñëw vacances yor oto tabax kër gu rëy di taxawaalu fii di maye ay euro wala ngay maye ay dollar mhm. ñu jël ñu ñu def leen ay royukaay ba tax lu ñu am fii dañ koy xeeb parce que j'ai l'habitude de dire que il faut qu'on qu'on s'attarde un peu sur ce phénomène ne pas considérer que la pauvreté qui migre ouais. c'est pas la misère qui migre mhm. déedéet mm que pour nga mën a jóge fii fay gaal lu mu néew néew néew di nga dépensé cinq cent mille. Mhm. parce que borom gaal gi moteur ba muy jënd essence ba mu ciy def. Mhm. ak jumtukaay ya ngeen di jëfandikoo ba ngeen di yegg fa ngeen jëm. Mhm. moom moo leen ko war a jox. moom passeur boobu. comme li ko Assane waxee léegi doyen Assane waxee léegi. mu am tey aujourd'hui ay loi ay loi répréhensible yu ko concerné directement. sur la question de de la traite des personnes et des migrants. mu am ci ay loi yu ñu dëgëral Sénégal. kooku da nga koy fay moom bu ko yoon jàppee la ñuy teg ci koom kenn xamul lu mu toll ci ay musiba hmm. mais xaalis ba ngay fay foo ko jëlee. fan nga ko jëlee. c'est beaucoup d'argent c'est euh, beaucoup d'argent des millions. <laughs> bien sûr te si tu passes par la Libye. c'est encore plus cher. Mm-hmm. parce que am na ñoo xamante ne voie terrestre bi la jël ba libi pour que tu arrives en Libye di nga dépenser lu mu néew néew néew entre trois cent et cinq cent mille. boo yeggee ba Libye. pour nga mën a traverser di nga dépenser waat beneen 500000 wala beneen 1 million. Mhm. te xaalis boobu yëpp yow boo koy xool loo ñaq la. wala su sa njaboot cotisé jox la la. Mhm. donc le mal comme on disait tout à l'heure il est très profond. Eh oui. c'est pas que uniquement c'est la jeunesse qui mooy jóg benn jour rek gàddu saagam ne maa ngi dem. Mhm. je di dit ci benn plateau ma yi soo koy xool jamono ji recrudescence bi ni mu commencé waat am. il faut qu'on réfléchisse sur un autre soxna Adja. ñu dugal la ci benn chantier boo xamante ne on te fait un contrat de deux ans <laughs> ou un an et demi ou un an di la fay deux cent mille ou cent cinquante mille. Mm-hmm. ngay dajale loo fayee gaal. au nga dajale loo utee butiku mbagg. wala loo ubbee sa benn euh, je ne sais pas moi benn. benn activité annexe yow yaa ngi xalaat loo fayee gaal ga pour dem. Mm-hmm. mais est-ce que culture buñ en lu ñu war a inculquer ngay. am salaire di ci jël même bu dee 500 wala mille francs di ko denc pour épargner parce que loolu aussi bokkul ci sunu culture bokkul ci sunu culture. Mhm. loolu c'est un vrai problème. Mhm. moo tax boo koy xool ça nous permet d'interroger tout le processus d'apprentissage. oui dans le pays c'est sur ce point même que j'allais euh, venir. Mhm. Euh, aujourd'hui est-ce que l'homme sénégalais jàngal nañ ko exactement ci ba ngay ndaw. Euh, tey euh, nan nga war a mën a def ba mën a xalaat ubbi sa xel ci yeneen alternative par exemple ah man de euh, liggéey naa dajale naa 500000 500000 su ma demee def ci sama poulailler 500000 su ma demee jënd ci sama lii nii jaayaat ko est-ce que dina ma mën a juralee est-ce que aujourd'hui sénégalais yi ñu ngi leen di tabb ci loolu exactement ba ñu mën a xalaatee noonu. je ne crois pas parce que xam nga entrepreneuriat aussi. Mm-hmm. comme on le dit en français tout le monde n'est pas entrepreneur. Mm-hmm. am na ci ñoo xam ne nag ils ont un don naturel. suñu mbokk bawol bool yi moom. macha allah ci wàll woowu. boo leen tegee ci situation boo moytul ëllëg boo ñëwee ñoom euro boo andi ñëwee wéccee la ko. ñoom yàlla may na leen ci loolu. mais nag ce don la xëy na peut-être mayuñ ko ñëpp. moo tax processus formation bi day intervenir à partir de ce moment là. mais allons plus loin. allons plus loin euh, léeg-léeg nga gis koo xamante ne par exemple il rentre d'étranger mu ñibbisi. kooku bi ñëwee la mu Mm-hmm. oto bi mu jënd kër gi mu jënd eh bu la waxee la mu daj balaa mu koy jënd ak fa mu ko jëlee mm-hmm. danga naan bu ma ko defee ci sama réew mi dina am lu ëpp loolu c'est sûr ça kon ils sont vecteurs d'information mm-hmm. moo tax ñu on la l'habitude de dire que oui l'État doit sensibiliser les collectivités territoriales les ONG nous tous nous devons sensibiliser mais encore mieux ña fa nekk parce que ay royukaay la leen sénégalais yi def la leen jeunes yi def donc ñoom it il faut qu'ils jouent leur rôle ce qui fera que donc l'équilibre sera vite trouvé il faut que ñu xam ne malgré ces métiers à tension yi nekk à l'étranger parce que nag ces jeunes qui quittent ils sont hyper informés xam nañu ne dans certains pays européens ils ont un besoin dans certains domaines ouais. il y a un besoin criard xam nañu info yi looloo tax ñuy jóg di dem foofu ou seen mbokk ba fa nekk moo leen ko wax et il le leur dit à tort parce que bu leen ko waxee boo fi ñëwee di nga am salaire u un million cinq mille mille cinq cent euros par mois. waaw na sa xel. Mhm. foog na ne jot nga ci salaire bi déjà. Eh oui donc le mal je pense que il est à plusieurs niveaux la responsabilité il est à plusieurs niveaux. Mhm. moo tax il faut que débat yu mel nii di am inévitablement. l'État nag quand même à un moment donné a fait quelques efforts ou beaucoup d'efforts. Mhm. parce que comme ma ko waxee en matière de sensibilisation. dans chaque région il y a un bureau qui s'occupe de ça mais la sensibilisation aussi am na avantage am na limite am que il n'est pas que boo ciblé la jeunesse dinañ la déglu am na ñoo xamante ne duñu la faale. Mhm. ils sont dans leurs activités am na mais nee nañ delluwaat. dañuy delluwaat man ah, j'en ai vu plusieurs. moi j'en connais un personnellement dem temps yii day passé rek mu ne ma Adja ba Dubaï laa dem <laughs> ñu indiwaat ma. am te damay delluwaat mu ne damay delluwaat. man en Libye il m'est arrivé de de de que bu ñu rapatrier sur trois vagues sur une durée par exemple de six mois nga gis ci un jeune boo xamante ne sur les vagues yow dafa dem si dem dellu si dem dellu si. da nga koy andi mu dem waajaat il reprend. Eh ñu andiwaat ko mu waajaat delluwaat. te kooku déjà min na yoon bi. min na yoon bi na nu muy def. moom dem na ba commencé seen les lumières mënatoo koo téye. d'accord alors euh, Pape. Euh, par rapport ak ba léegi euh, problème bi balaa ñuy dugg cette fois actualité politique fa parce que faaw ñu teg ci loxo nag ndax suñuy rakk suñuy doom suñuy jarbaat ñoom ñooy ñoom ñooy ñàkk seen bakken faaw faaw faaw ñu waxtaanee ko euh, dañu gis ne aussi ñi ngi wax sànq li nga xamante ne moom mooy la part de responsabilité de l'État Euh, mais des fois on voit une certaine opposition surtout cette opposition radicale là gëmloo sénégalais yi fii dafa metti ñi ñi gérer ni ñu gérer du noonu baaxul dem sax ba ne ay sàcc lañ euh, donc des fois est-ce que amul benn discours aussi démagogique boo xamante ne da nga koy servir déjà koo xamante ne liggéeyul des désœuvré bëgg na aussi parce que ñun aussi am nañ suñuy jikko bugg nañ am teraanga te duñu sonn duñu mhm. liggéey loolu aussi défaut la chez mhm. nous les les les nga di ko servir un jeune boo xamante ne lu bari bu ñëwee day day perméable ci moom est-ce que loolu aussi nekkul aussi beneen beneen beneen problème ci phénomène bi. tout à fait tout à fait xam nga euh, de depuis actualité bi génne dama doon liiraat benn éditorial bu Bachir Ben Ahmed. Mhm. bu mu bindoon en 2004. c'était le directeur de Jeune Afrique. muy expliquer les phénomènes phénomènes immigration clandestine bi euh, mais j'ai retenu benn bout de phrase boo xam ne ça m'a mu ne ces immigrants la qui ont laissé dans les barrières de milliards euh, des morceaux de vêtements des lambeaux de chair mais aussi une partie de notre dignité <laughs> parce que Afrique subsaharienne ak li mu constitué ci potentialité mm-hmm. malheureusement li waral lii nii mooy les gouvernants qui se sont succédés n'ont pas su enseigner et éduquer la jeunesse pour leur mettre utilement au travail fin de citation donc mhm. euh, di nga xam ne ce n'est pas un phénomène sénégalais sa euh, mhm. ça c'est clair man dem naa ba Kafountine fa nga xamante ne fa la ñuy jëlee départ ci ñu bari Euh, y a plusieurs nationalités foofu melting pot la gars yi di ñëw y a des passeurs ainsi de suite mais euh, euh, DG li mu wax effectivement il a raison de dire que ni ce n'est pas seulement parce que dangay gis ñoo xamante ne mais li li dajale ba yegg si foofu noonu da mais attends lii plus value bii nii lii lii loo loo ci mën ci def parce que pour moins que ça des gens ont réussi. mais dafa mel ni. Euh, dawaale benn contexte social boo xamante ne. mi ñu ngi koy dund. te bëgguñu dund loolu moom donc dawaa euh, genre day day mel ni ñuy ñuy ñuy euh, bëgg a ci benn ci benn prison. loolu lay ndurool alors am na ku ma ci waxal ci benn pays sous région bi la nekk mais mi ngi Dakar actuellement di liggéey di gagner sa vie. dafa jël yoonu libi bi bu la nettali yoon boobu man. Euh, en fait dam mu gi dama dama dama tiit léegi nan a dund après sensibilité psychologique mu mu resté en vie tellement ay esclave jàpp maanaam jàpp nañ ko ci yoon def na presque six mois ci benn yoon jàpp ko esclave torturé ko fu ne mu dugg fa ba yegg Espagne nee na ba mu ne sarax Espagne euh, di wut liggéey ñaari fan mu am liggéey ci benn usine nee na mu euh, dugg ci fii ñu préparer matière première je pense ay cacao wala kafe lañ doon euh, defar ci usine boobu. Mm-hmm. mu jékki-jékki xool situation bi rek il a il a fondu à l'arme di jooy jooy yu méttee méttee ba directeur bi ci mu wàcc di laajte kii lan lay jooy lan la lan moo ko jàpp. Mm-hmm. ñu kii ko yóbbu ko këram mu takki bagaasam ne day ñibbi. parce que foofu noonu mu dem ci usine boobu ak li mu daj ba yegg fa matière première bi mu fa fekk village am lañ koy bay. waaw mm-hmm. xooluma donc ça veut dire que ni moom xam euh, mu mu gis ne li construire lii yëpp kon xëy na sax ñun mu ngi suñu dëkk ñu ba ko fa. et pourtant ñu yegg si ba fii tout ce péripétie fekk fa matière première boo xam ne moom moo ko doon bay village mm-hmm. donc effectivement il une question euh, d'organisation. Mm-hmm. politique d'emploi de jeunesse mais politique d'épanouissement parce que nit du du du koom kese. Mm-hmm. l'être humain c'est un euh, animal mobile comme disait Schopenhauer donc kon bëgg di tukki bëgg di découvrir yeneen horizon dafa bokk ci nature am ci état de nature am la bokk mais ci contexte ak condition yii nii ñu koy defee ak langage bi ñuy utiliser Barça wala Barsaq mm-hmm. donc kon kooku noonu xamal ne li muy dund aussi moom dee moo ko ko gënal mm-hmm. donc kon loolu lan la finalement pression sociale la moo tax a chaque fois bu ñu nee la responsabilité de l'État dina andiwaale aussi la responsabilité de la famille ndax am na ku ñëw nettali na ko ci benn reportage bu ma seetaan ci internet. Mhm. mu ne ba yaayam ñëwee di ko gàttalu daf ne ko looy def fii. maanaam waroon ngaa des pour pourquoi ngay dellu si. Mhm. donc kon dafa am benn mirage benn mhm. Eldorado boo xamante ne. Eh te ñoom ci seen bopp xam nañ ne loolu du réalité. Eh parce que ña fa nekk di leen rendre compte xam na ne ña fa nekk tamit coono gu metti lañ fa nekkee mm-hmm. maintenant bu ñëwee am lu ñuy incarné nangam nangam mm-hmm. euh, donc nga ne xëy na lii muy def fii man mënu ma ko def sama réew mais xëy na sax bu ma ko defee foofu laay gën a am dara alors que les conditions ne sont pas ça ah, extérieur Europe Amérique fépp a metti fi mu toll nii la crise elle est mondiale et gis nga leen sax ñoom eh seen grande firme internationale multinationale yëpp ñu ngi ñëw fii nii di ji ut ay marché eh, donc kon euh, foog naa ne euh, kii tay la bakkanam mhm. boo waxee waxu responsabilité état ak gouvernant mhm. boo mënee tay sa bakkan mhm. pour mën a dem liggéey boo defee lu ni mel ci Mhm. alors Aladji Assane quand on parle de de ces jeunes euh, qui qui sont mhm. violents de ces jeunes qui qui risquent aujourd'hui leur vie pour dem fi nga xamante ne en en Europe à côté de ça on a aussi une autre jeunesse boo xamante ne sànq sama turandoo mi ngi koy wax mhm. euh, ay jeunes yoo xamante ne ñu ngi euh, rey ñu ngi seen bopp ñoom aussi ci euh, école yi ci résultat bac yi ñu jógee ni ñu gis ci ay résultats yoo xamante ne surtout ñu ngi côté jigéen sax ah sedd na sedd na sedd na xool ñu ci ah, profité di leen félicité bu baax a baax ku ci mel ni Yacine Fall nekk élève foofu ci lycée bu Ndande ak euh, Safietou Thior mm. lycée Mariama Ba bu Gorée ñu décroché euh, seen bac avec mention très bien donc euh, voilà dire si à côté am na ñoo xamante ne ñu ngi am conscience di rey seen bopp di jàng pour ëllëg mën a doon leneen ci réew mi. effectivement rawatina jigéen féministe. absolument pas un c'est ouais. extraordinaire. Nous euh, féliciter les femmes. On est très fiers d'elles. les femmes, les jeunes parce que de plus en plus boo ñëwee ci école yi université yi institut yi de formation da gis ni presque jigéen ñoo ëpp ci salle yi. même BFM bi ah participation BFM bi sax. jigéen jigéen c'est clair hein. Mhm. dama ko constaté d'ailleurs personnellement. Mhm. Mhm. donc ñu ngi féliciter loolu aussi dañ ci sant yàlla bu baax a baax. Euh, parce que loolu day wane ni également. Euh, mën nañu am yaakaar. Mhm. ci ci réew mi. Mhm. ci ci ëllëgu réew mi. Mhm. du jeunes yëpp aussi ñooy ñooy xaru. du du jeunes yëpp ñooy jël gaal yi. parce que jël gaal gi euh, xeetu xaru la. ñu ñu ngi koy wax sànq rek maa ngi woon ay débat ay nit ci loolu. ci bëccëg gi ci àjjuma ji alors euh, violence la sur soi-même. Eh parce que ñu ngi wax violence booy exercer si nit mais am na violence booy teg ci sa bopp. d'abord violence psychologique mhm. violence morale mooy euh, tekki baa baa faatu tekki ci euh, ak yu mel noonu mhm. bar barsa barsaq mhm. et cetera loolu viol xeetu violence la bu forte moralement boo xam ni moom la nit ki fan yi boo gisee euh, gaal yi bëri dem gi bëri ndeke wax nañ ma sànq ci ci àjjuma ji benn benn contexte ñu ni ma eh, benn calcul la yi def ak passeurs yi. Mm-hmm. dañu ne avec le phénomène yi fi amoon mobilisation force de pour maintenir l'ordre mm-hmm. ak tension yi ci la gars yi ba gars yi ndekk profito mm-hmm. pour convoyer gaal yi sa que surveillance bi day wàññeeku. day wàññeeku d'accord <laughs> après lañ ma ko lañ ma ko wax ah vendredi bi lañ ma ko expliqué ñu ni ma ñoom dañoo def seen i calcul gis nga gars yi ni ñuy calculer ni comme léegi tàlluñu parce que am na violence ci dëkk bi gaa yaa ngi mobiliser wu di maintenir l'ordre ñun nañ ci profité defar gaal yi dem. moo tax fan yi dem yi bëri woon naa. à partir de de Kafountine à partir de Saint-Louis à partir de de Kayar à partir de zone yu bëri te dañ ko organiser. am na zone yoo xam dañ ni léegi gaal gi ba mu def plus de cinquante personne et puis ñu ni léegi nañ def semblant ñu mel ni ñuy gëti. c'est-à-dire que mënoo imaginer ni ñi mm-hmm. dañuy dem donc c'est tellement bien organisé waa euh, ba nga xam ne moo waral fan yi effectivement départ yi mm-hmm. bari après lañ ma koy door a expliquer léegi nag les causes yi tax effectivement euh, d'accord naa bu baax ci excellence wax te Moussa dëggal ko mooy du question rek ñàkk mm-hmm. attention mais question naa def tout pour améliorer maanaam gën a ñoŋal mm. li ma am mm-hmm. fexe bu ma demee foofu la xaalis bi gën a gaawe foofu la tekki bi di gën a fëse mhm. foofu la am-am yi di gën a bëri mhm. foofu calcul yooyu la en fait c'est pas parce que nit ñi ñu naanuñu non du loolu mhm. en réalité du loolu moo tax phénomène na bi pour téye ko du yomb parce que euh, man nekkoon naa fa en Europe et tout da nga fay gis un ancien adjudant chef de l'armée mu déserté da nga fay gis un officier de police la preuve amoon na benn officier de police fan yi bu dem foofu door a posté ay vidéo mhm. dem Canada xaw ma door a posté ay vidéo mhm. te police defoon si communiqué fan yee passé yéen ngi fàttaliku. xam nga kooku amoon na salaire <laughs> door yi dafa dafa ñàkk mhm. donc mais gars yi mirage bi Europe États-Unis ak Japon ak faneen faneen am ci ci ci suñuy suñuy bopp ñun psychologiquement mm-hmm. parce que ñu ngi suivre média yi ñu ngi suivre télé yi ñu ngi suivre film yi mm-hmm. euh, jàpp nañ ni foofu seen niveau de développement économique effectivement loolu am na mm-hmm. seen niveau de développement économique par rapport ak ñun suñu bos tax na boo fa demee rapidement mën nga réussir yenn yi nga xam ne boo boo fi toogee doo ko mën réussir donc xale yi boo leen waxee dañ la naan ñun ñëpp dañuy jéem a sensibiliser suñu biir famille suñuy quartier suñu mais dañ la naan non de toutes les façons loo mën di wax ba teeral ñun la moo fële daal moo tane fii noonu man di demee rek fële moo tane fii waaw maanaam am ba mooy gën a gaaw que boo nekkee fii te loolu dafay difficile nga génn ko ci bopp xale yi jëm nañ côté bu ne mais nii ñuy demee nii mooy problème ñun waxuñu kenn bul dem et léegi jigéen ñi dañ ci dugg. boole ci seen i doom boole ci xale yi yor mm-hmm. jigéen ñi parce que foog euh, bëggam tekki bi. Mm-hmm. léegi jigéen ñi ñu si gën a sawar war wax eh ngeen ko si école bi. Eh eh n'est-ce pas. Mm-hmm. lay feeñ ci yenn secteurs yi. maanaam utum alal mi utum tekki mi jigéen ñi aussi dañ ci takk seeni i ndigg. nekk ci elles savent ñu yeggee. waaw elles sont mieux prises en charge. waaw ñoom la ñuy gën a yërëm. wala bu dee xale bu ndaw. bu dee xale ñaar ñooñu. la ñuy gën a yërëm ñii ay xale lañ. parce que gaal yi am nañ suy dugal ay mineurs. Mhm. seen i doom. yooyu yëpp am na de. responsabilité parents ngi la en fait. ñu ngi wax parents yi. Euh, xale yi c'est vrai am nañ ci responsabilité mais parents yu si bëri également am nañ ci responsabilité parce que jàpp nañ ni effectivement euh, li seen voisine bee mm-hmm. réussir seen dëkkandoo bee réussir ko ci doomam yóbbu maak euh, def nii def nii ñoom itam seen doom war na mën a réussir ëllëg ko ñu continuer ci mbaxalu keccax bi mhm. <laughs> ñoom itam ñu war a réussir loolu en réalité voilà concurrence bi nga xam ne moo am ci suñu société mhm. boo ñëwee di conscientiser nit ki danaan yow est-ce que yow wér nga <laughs> parce que parce que du la sax bëgg diglu mhm. parce que matérialisme yi la ñu poussé benn niveau xaw ma nag loolu ban à partir de quelle date man maa koy maa ngi koy jéem a natt ci les années quatre vingt. Mhm. parce que ñun dañoo toog ay temps àgg la télévision Sénégal benn télé moo fi amoon. la RTS. Mm ñu ñuy tegal les grandes séries américaines ñëpp fàttali ko nañ Dallas. ay dynasties ñëpp fàttali ko nañ dynastie mm-hmm. les familles Carrington mm-hmm. les G.R. Ewing mm-hmm. ñun ñëpp fàttali ko nañ gis nga moment boobu lañ commencé dugal ci bopp nit ñi matérialisme boo xam ni ak euh, teg beneen valeur bu mu mën di doon dañ koy teg ci suuf eh bëgg a dund loolu ba actuellement ñooñu ñoo màgg nekk ay parents ñoo jur xale yi te dans les familles y a une morale bu ñuy tax xale yi cest di que xale buy tëdd ak jóg wala bu mënagul tekki dañ lay teg pression boo xam ne. Mhm. sans donner l'air parce que ay façon la ñuy def façon yooyu di war ne nii punkal mi tekki woo dara mhm. wéy sa morom mi wéy pression boobu ñuy tax xale yi si biir kër yi. Mhm. tax na dañuy da leen di jaral sax ñu faatu. moo leen gën a que sax ñu continuer di dund yenn yi. Eh te te le Sénégalais il très agressif. bu ko neexee maanaam waxam. Euh, tout le temps mën na lay di la di la wax li di la jam waaw di la jam di la di la toroxal euh, sans donner l'air mm-hmm. te yooyu mu ngi ci biir quartier yi ci biir kër yoor mu ngi ci yooyu mu ngi ci biir famille yi bu baax yoor yooyu mu ngi ci biir kër yi mm-hmm. ba nga xam ne parfois xale yi dootuñu sax bëgg dara ci dund bi mm-hmm. loolu lu ko fi jar sacrifier sa sa doom sacrifier sa sa xale sacrifier sa jarbaat ngir rek jàpp ni yow yow da nga war a dund tranquillement moom mu nekk foofu di sacrifice parce que beaucoup de gens c'est un vrai sacrifice Alaaji Assane parce man quand j'imagine tout le temps que tu perds euh, par exemple ñi nga xam ne dañuy bàyyi euh, seen i jabar ñi nga xamante ne dañoo bàyyi seen yaay seen yaay dellu ginnaaw seen euh, seen dellu wala ne ginnaaw seen seen ginnaaw en fait toutes ces choses là soo demee foofu temps bi ngay consacré pour liggéey moi je me rappelle la première fois que j'ai été euh, en France ma dem euh, man bi ma gisee comment les Sénégalais vivaient. da ngay jaaxle da ngay ruus dama dama dama jaaxle. da ngay ruus da ngay choqué ñu doon ñëw ne wesh wesh di la jaay wesh waaye ah. j'habite Paris et tout ça nga ñëw nga gis kooku wesh wesh. traumatisme la man je dis non c'est pas c'est pas possible en fait. yooyu noonu yëpp nit ki di def. waaw waaw parce que euh, li ma bëgg li ma bëgg daanele. ñu waaw ñu. mooy gis nga noonu gars yi bëgg a demee. Mhm. yi di bëgg yàkkamti dem. Mhm. di def tout pour dem. di bëgg a dem gis nga boo fa defee 3 mois 6 mois. doy sëkk noonu ngay bëgg a ñibbisee. te doo te c'est facile doo mën ci ñëw na ko dund. Mhm. dund mhm. ko foofu en Europe. eh oui c'est vrai El <laughs> loo nan nan nga laay ñibbee ngay xalaat yow. yow sa problème te des fois doo mën a ñibbisee. que li Adja wax nii moo lay dal maanaam euh, benn choc psychologique ngay am benn choc. maanaam da ngay découragé. ci na la nga fooge woon euh, nit ña. Mhm. immigré yi ak ah. na nga leen fekke eh daf lay def choc. et puis seen yéen yeneen jikko sax yu bees yoo xamante ne. mun nga ko gis waaw daf lay def choc léegi nag daxaar gi. mooy kii door a ñëw. Ah. daxaar gi dañuy bu ñu téyewul sax ay këyitam passeport am denc ko. boo méttuwul dina def musiba. te gis naa si comme ni nga ko doon wax sànq Pa Moussa. mag yi jëm ñu jooy. jooy jooy yu métti sax. parce que dañ naan ah man de fii. fii nii de foogewu ma ko woon nii. d'accord <laughs> man de foogewul bu ma xam ma woon nii nii lay demee. Mhm. man de xaw ma woon ni lii laa fi fekk. man de gars yi dañ dañ doon gondi rek. gis nga lu moo gondi eh, ah. Eh, am na ñoo xam sax bu ñuy ñibbi Sénégal dañ naan mbooy naa dem tàngal dëkk ba tàngal. waaw maanaam. <laughs> benn po de tuuti ñëwaat <laughs> <laughs> euh, boo xamante ne waaw eh dinañ dinañ dinañ poursuivre li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi. Mm. parce que faaw ñu wax ak nag sunuy sunuy rakk euh, ñu xam ne xëy na peut-être. Euh, coono bi ngay daj balaa ngay dem am na ci loo xamante ne boo ko dajoon fii mhm. peut-être euh, dina mun a demee neneen et puis ñu xam ne une réussite du seulement financière réussite nit du mhm. seulement li nga xamante ne moom mooy moom mooy koom valeur dafa am solo ci nit yenn comportement yi aussi mhm. dafa am solo ci nit waaye des fois mun nañ ne aussi euh, gor faaw nga góor ci dara balaa ngay balaa ngay gore mais loolu yëpp aussi mun nañ koo mun nañ koo relativiser. Mm-hmm. te mu nekk frange boo xamante ne Sénégal daf ko soxla ndax ay ndawam lañ ñuy ñàkk noonu seen bakkan dañuy profité ci tribune bi. Mm-hmm. Euh, di leen jaal di ñaan sunu borom. Euh, yal na euh, yàlla yal na leen yàlla xaree àjjana. mais surtout jox xolu muñ aussi ñi nga xamante ne ñoom ñooy seeni seeni waajur. Mm-hmm. bu ko defee ñu continuer li nga xamante ne cette fois-ci mooy sunu actualité politique directeur dañ koy tàmbali ak yow. Euh, ñi ngi xaara ah, ki nga xamante ne moom mooy seen leader mu yëkkati ay kàddu mais balaay loolu déjà gis nañ ay grincement de dents am na ñu commencé di wax ñoo xamante ne dañ bokk yéen seen parti euh, yëkkati nañ seen loxo euh, actualité boobu yëpp mouvement boobu yëpp ban jàngat nga ci def mais aussi dama ciy ci laale parce que il y a deux mois fii la ñu toog xam nga yow bokk nga ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy victime troisième mandat coowal mm. troisième mandat mm-hmm. nga gëm ni ki nga xamante ne moom mooy njiitu réew mi du samp ndëndëm ndax lool nga fi waxoon bañ ne la on se donne rendez-vous bu njiitu réew mi waxee après di nga di nga dellu siwaat mm-hmm. bi njiitu réew mi waxee ban sentiment moo la animé jour boobu jërë jërëjëf Adja sentiment de de satisfaction rek quoi mm-hmm. vraiment d'un militant euh, boo xam ne xam na njiitam ci jikkoom ak melokaanam euh, te la ma jàppoon ci moom it juumuma ci parce que j'ai l'habitude di fàttali que transhumance d'habitude et c'est normal c'est de l'opposition vers le parti au pouvoir man ouais. quand je, je le rejoignais j'ai quitté le parti au pouvoir il était dans l'opposition fekk ko ndax valeur parce que man lu ma nit ëppalewul du ma la ko nawee te wax naa ko fi keroog ma ne la rupture bi mu defoon avec le PDS am fan du fay façon ndombay tànk bu ne ñu defal ko teraanga bu ne mu wone boppam ci réew mi ba mu defee rupture dafa jël lépp jébbalaat ko waa PDS dem ak zéro wóor boppam dénk boppam suñu borom mm-hmm. dellu Fatick ci ay mbokkam élection 2009 ñu jox ko mairie bu Fatick 2012 njox ko réew mi mais valeur ya mu porté woon moo tax loolu yomb foofu rek laa ko tegoon moo tax tey on rend grâce jë Dieu parce que grand Assane wax na ko léegi en vérité le pouvoir ne tire pas sa source de la haine mais de la vérité moo tax vérité toujours elle finit par triompher mm-hmm. et moom il a fait triompher la vérité mais dans ce cas yéen lu tax ñu sanctionné leen xëy na nag loolu beneen débat la parce que en vérité tey booy xool sa question bi nga posé léegi difficulté yi mu am bu dee am na difficulté pour ñu ne kat doyen assan va être le porte-étendard de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour 2024 waroon na mun a nekk lu yomb li taxoon mu war a nekk lu yomb su fekkonte ne amoon nañu parti boo xamante ne dafa structuré wu de la base au sommet. moom nee na noonu lañ ko buggee woon. on lui avait posé une fois la question. voilà dafa am ñaari groupe yu nekk ci biir parti bi. groupe boo xam ne dañoo bëgg ñu maintenir le statu quo parce que statu quo boobu la ñëwee au pouvoir en 2012 ci lañ gagné toutes les élections au Sénégal jarul changé ñoom noonu lañ jàpp alors que tey limitu statu quo boobu feeñ na ci choix bi parce que bu fekkonte ne tey moom le président militants yi dans le parti ñoo choisir ñetti nit ñu ne ko nag tànnal ñu ci ñetti ñooñu ki nga wóolu ci ñetti ñooñu ça aurait été plus facile pour lui. parce que boobaa militants yi def nañu une première sélection ñoom Sori Kabaak ñoom ñoom Pape Moussa ñoom ñëpp éliminé nañu leen mu des ñaari ajaay ak grand Assad ñu jox président ne ko nag ñetti ñii nag xanaa war nga ñoo mën a tànnal mu yomb ça aurait été ça dina yomb ci moom et bu boobaa la responsabilité du ko porter moom kese mais daf koy porte porter ak le parti mais tey moom rek moo nar a porter responsabilité moo tax mu métti mhm. mais tout compte fait c'est normal parce que nag un président de la république du caaxaan te boo demee ba toll moom fi mu toll nga occuper toutes les fonctions yi nga xamante ne tey réew mi yëpp yëpp yëpp jox nañ ko ko d'un poste de chef de service la commencé ba président de la république maanaam bu doon général dañ naan c'est un général qui a rampé. Mm-hmm. kooku tey gisuma lan moo ko mën a jaaxal ci état amul góor ñi jigéen ñi ko wër amul kenn ku ko ci mën jaaxal il les connaît tous comme les bouts les les les doigts de sa donc je sais que d'ici bientôt choix dina am. mais jàpp naa ne sanction yi nga xamante ne comme ni nga ko waxee moo taxoon ba Sori Kaba bi mu waxee ñu sanctionné ko. après Moustapha Diakhaté. après Moustapha Diakhaté amaana peut-être ni réew mi naroon a sooxee su fekkonte ne le débat a été très ouvert mm-hmm. moom la ci doon bañ. parce que tey booy dégg yenn candidature yi. yi ngay dégg ci biir alliance pour wala biir bennoo bokk yaakaar. Mm-hmm. dama naan est-ce que man maa comprendrewul wala je suis en retard. pour yow intimidation amul. parce que Pape moom dafa gëm ne intimidation am. c'est-à-dire. jóge ci. président benn opposition bi ou bien jóge ci population bi. non no man loolu dama koy relative dama koy. pression pression dama koy plutôt dama koy dama koy relativiser. parce que li tax ma koy relativiser mooy euh, le choix bi mu def. mooy choix bi nga xamante ne ku mel ni man ak beaucoup de sénégalais te même parmi ceux-là yi ko doon wax vas yi soit candidat loolu lañ doon xaar ci moom. Mhm. bari woon na ci ñoo xam ne ñu ngi ko doon wax vas yi mais ñoom ñu ngi doon xaar mu bañ a dem mais dañ doon jéem a préserver seen i intérêt donc pression bi dama koy relativiser parce que nag man pression moom ni ma koy gis mu koy dundee du genre pression politique moo koy jaaxal moom pression bi ko jaaxal pour un être sensible et social qu'il mooy par exemple ce qui s'est passé à l'hôpital de de mhm. booy jakartamaan yooyu def marche wala le personnel de l'hôpital def marche mu ne qu'est-ce qui se passe yooyu daf koy jaaxal moom en tant que qu'être humain. Mhm. wala ce qui s'est passé à Yoff entre la gendarmerie et les populations de Yoff. Ngor de Ngor mhm. il s'arrête il arrête la République il dit nañu ñëw ñu waxtaan on trouve une solution foofu il est très sensible mais pression politique tel que je le il ne cède jamais. Mm donc man je pense que aujourd'hui bientôt te bu ci yàlla àndee gëm naa ne encore il fera un bon choix pour le porte-étendard. Mm alors il fera un bon choix pam mussa ñu ngi koy euh, wax euh, aujourd'hui euh, la grande majorité présidentielle jamono ji ñii ñu ngi dem ne ñu ngi dem ne sànq sama turandoo mu ngi koy tudd ci mel ni waa PS ki nga xamante ne mooy Jean-Baptiste Diouf moom dañu ko bëgg a investir ñoom Abdoulaye Wilane donc mu nekk nii coow li dafa ne cour jamono ji ci li nga xamante ne moom mooy grande majorité présidentielle tey kenn xamatul ndax bennoo day continuer nekk bennoo àndandoo Euh, songandoo en 2024 ou bien ku nekk dafay dem lu ci mel nii euh, waa PS. <laughs> waaw euh, bon d'après bi ma dégloo Sori Kaba ba tey bon c'est le militant qui parle militant très passionné. Ah de ah <laughs> leader en réalité en réalité comme ni ma ko waxee woon keroog moom il est la preuve palpante que nii le président bëggoon na ko. Mhm. tey wax naa ko fi ci ay plateau yu bare bare bari ne bëgg na ko mais mënu ko ndax du ko def. bëgg ko ak bëgg ko du ko def parce qu'il est suffisamment intelligent ba petite porte baa ngi nii jaaral demal forcel am benn score boo xamante ne du la honoré ba pare nga génn par une petite porte pour man le président Macky Sall est plus intelligent que ça ndax moom am na précédent le président Wade n'avait pas de précédent moo tax il a euh, il est allé jusqu'au bout mm-hmm. mais moom il a un précédent il a l'exemple le respect la mm-hmm. considération bi ñu am ci moom am nañ ko ci président Wade mm-hmm. si le président Wade n'a pas réussi il ne peut pas réussir donc kon ba mu leen dàqee moom ñoom Moustapha Diakhaté ñoom maître Moussa Diop mais parce que boobu am na ñu doon wax ne mën na ko te pour naa dàqu kon wax jii ñoom ñoo doon wax moom moo ko arrangé wul woon alors au fil temps nga gis euh, ay ñooñam taxaw di organiser ay meeting d'investiture ne moom mooy seen candidat par force. Hmm. mais euh, ce qui est bizarre euh, monsieur wax na ko mooy nga ñëw investir ne ko yaay suñu candidat yow yaay suñu mbër yow la ñu gëm yow la ñu wóolu yaa mën a boole njaboot ji. Hmm. moom mu ne moo bañ demul. yow nga ne ko félicitation décision sage. kon xam nga ne sagesse su décision bi mi ngi woon ci mu bañ a dem teewul yaa ngi ko doon forcé na nga ko demal. Mhm. donc kon loolu euh, je l'assimile à une hypocrisie politique boo xamante ne man jàpp naa ne euh, il préserver des des des des intérêts. Mhm. mais xam nañ ne euh, stabilité sociale nekkul ci président Macky Sall di forcer loolu noonu beneen preuve kër yi dañ ko ko forcer <coughs> la rue a eu raison les manifestations ont eu raison parce que je veux rester factuel tey lan moo tax ba léegi nii. kenn xamagul kan mooy candidat pour yow lu tax. parce que préparé wul lii. ah bon waaw jàpp moom prépa foogul woon ne moom situation bi nii lay demee. déjà après soo buggee soo soo soo ci buggee. tontu donc donc donc donc c'est c'est waaw loolu am naa ci élément de réponse. c'est une preuve de la pression. parce que moom boo yërëmantee tuuti mois ci ginnaaw jàppoon na ne day dem parce que euh, ñi doon wax demal moom it mu ngi leen doon wax naa leen war leen mu wax ma war a dem maanaam. Euh, candidature boobu porté leen ko ba renverser tendance yi fi jaar ci législative beeg local bi. Mm-hmm. donc kon euh, le fait que ba léegi xamuñu ñoom kan mooy seen candidat ça veut dire qu'il cherche et effectivement il se cherche parce que ñëpp xam nañ ni la candidature euh, Amadou Ba s'impose à lui mais moom son choix de cœur <laughs> keroog <laughs> doy Asan bu mu ko doon wax. Mm-hmm. di rap di di wax un peu phénomène mauritanien. avec euh, waaw Gazouani mhm. Gazouani ka ko porté Aziz la mhm. daanaka defal ko lépp mhm. ba jëlal ko nguur gi teg ko ci loxo mu jël ko tëj ko kaso mu jël ko tëj ko kaso kon gars yi dañuy wax stratégie russe mais ça ne passe pas toujours te boo teniree le euh, la pouvoir ay la yoon le président Abdou Diouf bind na ko dans ses Euh, divergence bu ko xawoon opposé moom ak président Senghor jusque bi ko président Senghor joxe le pouvoir parce que mënatoo nekkoo le président de la république di jouir de toutes les prérogatives d'un mm-hmm. président de la république et j'ai l'impression que président Macky loolu la bëgg a def alors par rapport à la question de Adja Assou cette fois-ci mm-hmm. très rapidement l'avenir de, de certains euh, partis au, sein de Benno ñoom PS ak ñoom mm-hmm. parce que ba nii nii nii nii nii may wax yow le choix du président te loolu amul. ah bon ah oui oui je suis formel. mais Mohamed Boun Abdallah Dionne ça fait euh, pratiquement une année ou plus boo xamante ne. est euh, oui. euh, totalement ëpp na ko effacé. d'être là sans parce ah que les choix du cœur maa la ko doon wax keroog. Mhm. ne la Mohamed Boun Abdallah Dionne la. Mhm. Amadou Mame Diop la. Mhm. Abdoulaye Daouda Diallo la. Euh, ñooñu ñoo xamante ne tey bu leen sampee moom mooy diriger sans diriger. ndënd yu bëri na te euh, Amadou Ba buñ ne moom la ñeneen ak ñeneen dañuy doon candidat boobaa Aly Ngouille Ndiaye day doon candidat kenn mënu ko dindi te ba ma ko waxee semaine passée ba léegi du dañu ba léegi mu ngi ci logique benn condition la ñu am ñu ma la waxoon ñëpp benn condition bu dee buñ joon la garaaw. ñooñu ñëpp bu dee Mohamed Boun Abdallah Dionne la garaawul. ah peut-être am na luñ ko rusee. waaw boobu mhm. bu dee Amadou Ba la da ngay gis euh, Aly Ngouille Ndiaye day maintenir sa candidature. Mhm. Mame Boye Diao day maintenir sa candidature. Mm-hmm. Euh, Diouf sa ñenn ñooñu ñëpp te bu boobaa Benno day tas. man li ma gëm mooy aujourd'hui li euh, ma gëm mooy Benno day tas. mais poids Mahammed Boun Abdallah Dionne politiquement parlant aujourd'hui est-ce que nekk na quelqu'un koo xamante ne tey il peut permettre à Benno ou bien à kii euh, l'APR ci boppam ñu mën a remporter li nga xamante ne moom mooy les élections xam nga Adja Assou bu la président Macky Sall fekkoon fii ne la candidat mm-hmm. da ngay toog rek di ko seetaan parce que xam nga ne yow amagoo base xamoo fooy géey kooku bu la joxee nguur gi. ce ce ce pouvoir là n'est pas tributaire de confiance bu la askan wi jox mais moom mi la choisir. ki nga xamante ne euh, peut-être tey am na ñu muy choisir ñooñu am nañ li ñu defal seen bopp. am nañ seen i mérite bopp mën nañ avancer seen bopp mais ki nga xamante ne lépp lu xam ci yow la ko euh, kiiwee. <coughs> Mhm. donc kon moo tax ma ne la choix yooyu noonu. choix la yoo xamante ne moom day nekk fii sans pour autant mu nekk fii mais c'est le choix qui ressemble le plus. d'accord parce que nee naa la. cette France dissidente yëpp. ñoom jàpp nañ ne boo ko joxee kooku noonu. xëy na mën nañ cee ànd. donc kon li ma bëgg a prouver moom mooy que ni et c'est factuel. président Macky woy maa ko waxoon xaw ma dañu war a te pourtant moo ko léegi laa di que ni juridiquement juridiquement euh, euh, après dina ñëw léegi ci li nga xamante ne moom mooy euh, bu fekkee ne da nga bëgg a andi benn contribution par rapport ak li nga xamante ne Pape Moussa wax na ko mais ba tey loolu Alaaji Assane da ko wax dafa poser question dama si ñëwaat très rapidement rek Jean-Baptiste Diouf moom jeudi bi def na li nga xamante ne moom mooy investiture biir PS ba léegi bi mu bokk mooy le maire de de Grand mm-hmm. xam nga moom def na def na investiture am Abdoulaye dagge na ci lang gi am na lu mu wax nee na. Mm-hmm. candidat candidature yi ñoom war nañ ci am waa PS. ku ci mel ne Mamadou Wane moom il va beaucoup plus loin mu ne sëriñ bay caam dafa war a bokk ci candidat la candidature yu bennoo. Mm-hmm. yow samedi bi jour pour jour dressé nga benn portrait robot. boo xamante ne nga ne boo moytu ci lii la njiitu réew mi di sukkandiku xëy na pour tabb ki nga xamante ne moom mooy seen moom mooy seen bër mais avec yenn conséquences yi par rapport ak jàngat boobu yow fan nga si fan nga si toll ba léegi parce qu'on attend demain ah peut-être qu'il va parler demain non non incha allah euh, fi ma si toll mooy Macky xam na candidat am c'est clair c'est déjà clair dans sa tête da ko waxul rek non parce que mënoo imaginer mu taxaw ni duma ma nekk candidat. ça am idée euh, kan mooy nekk candidat parce que mu ne waxagul ba léegi parce que. xamagul il n'était pas préparé. non <laughs> mu la du ma nekk candidat xam na kan la kan mooy nekk candidat. enfin parce que. mais écoutez, parce que dafa am génie politique mettez-vous à sa place. soo nee du dem ci sa groupe déjà am nga idée ci kuy dem. Mhm. ba muy annoncé. déjà am na idée ci kuy dem maintenant. am na benn la mooy xam na ko. Ah, supposons tey supposons tey. Mhm, mhm. de mais jëlal rek nga nekk mettre à sa place. Mhm. nga xam ne yow yaa ngi groupe ci benn choix bu am solo boo war a def. yow mu wóor na ni yow doo dem. nga war a dem war a annoncer waa réew mi ni doo dem. saa nga am benn idée ci ku war a kon moo la war a remplacer. je ne pense pas. quand pour man pour man déjà xam na def na choix am ba pare. qu'il est de sonder. qu'il est en train maintenant dafa piéger ñëpp. en réalité. comme ni mu defoon ci discours am bi parce que paraît deux trois personnes. dafa piégé ñoo nekkoon au mu def ko en direct. la à la surprise générale. da da piège bi mooy ñu ñëpp daf leen xoj. PS AFP. bi mu leen bi mu leen bi mu leen poussé ba dernière minute parce que li may tuddee dernière minute. mooy mooy simon mois mais ils n'ont pas le choix. fu ñu jëm waxoon naa ko fii keroog fu ñu jëm. ils n'ont le choix. Mm. seen noyau dur yi dina am ñuy ñuy lang xam nga xam nga ak gétt. ñu baal ma nag si waxet bi gétt day am ñuy <laughs> quelque quelque nag yi jàdd <laughs> dina am ñuy fàq nii di jàdd ak ñuy aw mais l'essentiel mm. va rester. parce que intelligemment loolu mooy la la décision sage. ñoo bokk destin. ànd liggéey ba fii. yi pousse leen ba dernier minute parce que bu ko teeloon wax musiba am. parce que gars yi dañu mën a préparer seen bopp. fi mu nekk nii looy préparer. amatoo jot. amatoo temps kon sanction yi yëpp mu doon def daf daf daf doon bluffer son monde dafay bluffer gars yi. léegi comme agsi nañ dernière minute. gars yi noyau dur yi day reste noyau dur PS day reste agitation wi laan yàgg na. Mm-hmm. mais ay wax nii nangam na. après mu mettre la pierre noyau yi day resté noyau dur AFP day resté noyau dur ñoom ñëpp seen noyau dur day resté. Mm-hmm. te ñoom ñëpp le général demul fenn mooy yi dina leen wax kii la te ñi si bëri si ñoom dinañ ànd ca kooka. Mm-hmm. mais nag Macky aura deux candidats. Ah je veux faire évoluer sama réflexion. Mm A ak candidat B. candidat A. mu ngi koy jëlee si benn bokk yaakaar mais tout en tout tout en se disant que kooku mën na ñàkk parce que du moom mooy nekk moom moom moo doon la candidat idéal mhm. mais comme amul la candidat idéal dina dina ku amul ku na amul mu amul yaay nàmp maam nàmp maam mhm. léegi nag candidat am boobu bennoo mën na ñàkk mhm. mu rabattre sur son candidat B mooy Gloria ba Euh, que, que personne ne connaît. <laughs> Ouais. qui est derrière. C'est entre Karim Wade Khalifa Sall Idrissa Seck. Idrissa Seck ku ci génn si ñoom. waaw mooy ah, mooy. non waxin la rek. Oh, waxin la rek parce que Idi daa génn. non daa génnaat. Idi Idi nekkul sa mbiru soow bi daa génnaat. est-ce que tout ça c'est pas une stratégie. non non bu boobaa ñoom ñetti ñooñu. Mhm. Euh, ku ci génn deuxième tour. te be candidat bennoo génnul deuxième tour Macky dina poussaat ba benn ñu pour ñu jàppale la yow. Mhm. moo tax ma tuddee que le candidat B. donc Macky va viser sur deux chevaux. Mhm. ñaari fas. moo tax ñële mu jox leen seen i droit ñu retrouver seen i droit parce dama leen waxoon fii ngir mun ci mhm. ci ci kii bi. waaw dama leen waxoon fii mën leen. yi dafay dina bu intelligemment bu bëggee def intelligence politique dina wutal wujji waa waa opposition Pastef de waxoon naa leen ko effectivement oui te c'est ce qu'il a fait libéré na leen mhm. libéré boobu c'est pour avoir capté kenn si ñoom xam nga yonte bi bi ñaari Omar yëpp ay ennemis la ñu woon ñaari Omar yëpp Omar bun Xataab ak beneen Omar bi mhm. da mu yonent bi ñaan yàlla nekk maa ngi ñaan yàlla kenn si Omar yi. Mm-hmm. muy tuub nekk dugg si. da ko ñaan far muy <laughs> mm-hmm. chose. kenn si gars yi que muy Khalifa muy Karim. wala Idi. Mm-hmm. kenn ku si génn deuxième tour. ci élection yi te candidat benn bokk yaakaar génnul deuxième tour yow candidat Macky ngay doon. te loolu waxtaanee nañ ko avant. Eh moo tax man la Macky va miser sur deux candidats quant à candidat benn bokk xam na ko ba pare il s'est déjà décidé léegi nag day préparer le terrain sonde gars yi bàyyi leen gars yi di bouger gi yëngatoog ñenn ñi sax dañ leen xay na sax moo leen di ba wax ñuy wax ñuy wax <laughs> bu paree mhm. day xëy rek na leen tay ne la mu ngi nii te ka mu décidé ko foofu la gars yi di ànd mhm. foofu noonu ñëpp bu ma nee gars yi mooy ñi si ëpp mhm. dina am nag quelque agitation ay kii yu xaw a génn yuuxu noonu mais dara mhm. le noyau Benno va rester mhm. parce que loolu mënuñu am beneen choix actuellement parce que un amuñu temps bi mhm. deuxièmement doo am opportunité politique xam nga dafa am droit des affaires euh, euh, euh, Pape Moussa sa sa domaine la li ñuy wax l'affectio societatis mooy bu ngeen bëggee ànd dans les affaires pour am des bénéfices il faut ngeen benn affection boo xam ne ba ngeen ànd liggéey fii dafa am lu ñuy wax l'affection politatis l'affection l'affection politatis mooy yéen yi bokk destin politique même bu bu bu dee yow kii safu la mais vous êtes vous avez un destin commun ouais. loolu moo dal waa benno il faut ñu développer benn affection politatis te loolu mooy seen intérêt ñoom mooy ñu déglu Macky Sall na nañoo moom ci destin bu fii. Mhm. mais c'est un destin scellé. Mhm. il faut que il faut que ñu continuer. Mhm. ku ci jàdd doo am sax zéro virgule zéro un pour cent. ils sont toujours obligés euh, de. de <laughs> faire euh, blocus ensemble. ah ils sont toujours obligés euh, voilà. Euh, d'être ensemble intelligemment du du Aminata Mbengue Ndiaye. du Moustapha Niass. non Moustapha Niass ñoom waa ay fee ñoom ñoom def nañ seen. communiqué ñoom dem ci mag parce que c'est ça. non non non mais ça c'est Alioune Sarr non non Alioune Sarr moom moo dissidence mais AFP moom ñoom ñoom va rester ñoom ñoom non ñoom ñoom aussi va rester ñoom ñoom ñoom def nañ seen communiqué ñeneen ñi aussi ils vont rester parce qu'ils n'ont pas le choix Macky da leen a poussé ba dernière minute d'accord mu door na leen ah gars yi de lii laa décidé. d'ailleurs y avait un manque de loyauté parce que normalement waroon na leen concerté wu ak ñoom. il l'a effectivement merci beaucoup El Hadj Assane <laughs> euh, alors euh, directeur euh, tey dégg nga analyse euh, bi nga xamante ne El Hadj Assane def na ko nga yaakaar ne que aujourd'hui le président choix boobu rek la mën a am pour euh, espérer continuer toogaat encore ba après 2024 espérer toogaat c'est-à-dire. Euh, espérer toogaat mooy maanaam. coalition bi mais pas lui directement. non pas ah évidemment évidemment d'autant plus que. pour dëggal euh, un les éléments d'analyse yi doyen Assane avancé. Mhm. Euh, dama ci yokk l'élément programme. Mhm. parce que ñoom ñëpp ils sont liés aujourd'hui par le PSE. donc la coalition Benno Bokk Yaakaar est devenue d'une est passée d'une coalition politique à une coalition programmatique mm-hmm. et ils sont sûrs qu'aujourd'hui le PSE a fait ses résultats donc quelle est cette personne qui va porter maintenant ce programme-là dans la prolongation de ce qui a été déjà commencé mm-hmm. parce que nee nañ moom moo non cest dire boo nee Boun Abdallah mun nga wax sax en même temps Amadou parce que Euh, le club de Paris. Mhm. bi ñuy jot les premiers financements du PSE. c'était lui c'était lui ministre de l'économie et des finances donc là-bas c'est moins grave. Mhm. mais li doyen Assane wax lu jar a bàyyi xel la parce que. xam nga le président Macky contrairement à ce que les gens pensent. Mm -hmm. comme Pa Moussa ni mu ko waxee il savait qu'il n'allait pas se présenter. ah oui ah oui. kon yéen seen sanction yeeg yooyu yëpp. il le savait. il voulait tromper son monde. man je. Non, non, non. non non non je dis pas yow. dañ ko bëggoon dañ ko ko forcé ba xam ne bu demee du am 10 pour cent moom ci boppam. d' accord mais mais mais ko mu kii. waaw sa est dire que man. Hmm. wóor na ma ni il n'allait pas se présenter. sa c' est clair maintenant pourquoi avoir attendu à six mois pour le dire. Hmm. loolu moom rek moo ci mën tontu. mais comme Assane l'a dit c'était waaw ubbi na un coin de voile waaw au mur et Assane ubbi na un coin de voile euh, un blocus et effectivement uh-huh. te moom xaw na ko junj à un moment donné quand il avait dit oui ni oui ni non mu ne su ma nee je suis candidat ñëpp ne warul doon candidat réew mi nekk en campagne électorale permanente mm-hmm. bu ne je ne suis pas candidat mm-hmm. nee na ses ministre personne ne va aller au travail mm-hmm. ñoom ñëpp ils vont se pour me remplacer la situation lui donne raison moom laa wax léegi ma ne booy xool yenn type de candidature yi déclaré wu ba ma naan xanaa man j'ai pas compris ou je en retard c'est par rapport ak moom la mu waxoon tey moo feeñ donc moom dans ses convictions intérieures man wóoroon na ma ni il va pas se présenter. parce que da ngeen posé ne jàpp na waaw kay man moo tax quelque part j'ai dit avoir raison très tôt. Mhm. tu finis par avoir tard tort. Et ça, je l'accepte, mmh. je l'assume. Mhm. Mais au même moment, au même moment, mmh. je l'ai interpellé parce que j'ai dit, dans un parti politique, comme dans une démocratie de manière générale, non, il faut une diversité d'opinions. On peut exprimer ses pensées. Effectivement. La loi aussi, c'est normal. te lii ñu non non non Ola man bi ma ko waxee c'est le lendemain qu'il l'a dit. waaw ah. mhm, après. avant ah d'accord man bi ma waxee ba pare. Ah. le lendemain il a dit qu'on n'en parle plus jamais. waaw loolu nag peut être il faut ngeen invité ko mu wax ngeen laaj ko pourquoi il avait limogé Sory qui vous dira maintenant situation bi ñuy dund mm-hmm. doyen Assane mm-hmm. c'est pas nouveau mm-hmm. si on se souvient quand le président Senghor s'était retiré du pouvoir mu bàyyi fi Diouf article 35 article 35 bi on n'était pas à d'une élection loolu rek mooy différence bi mais bi on est à la veille d'une élection il faut un candidat mais bële on n'était pas à la veille d'une élection. mais c'était compliqué pour Senghor. mais c'était très compliqué parce que les <laughs> Moustapha Niasse les Babacar Ba les Adrien les Djibo ñoom ñëpp ils pensaient que c'était eux. Mhm. mais il avait eu l'avantage d'avoir pris Diouf def ko premier ministre fu mu dem ànd ak moom. ñuy gis visage Diouf naan kii kan la. fu mu jëlee kii. pourquoi lui là. pourquoi le technocrate nañ ko miin nañ ko. moo tax quand il l'a proposé. Mhm. à la limite il a fait. des mesures d'accompagnement en amont dafa waxtaan ak tout son attelage gouvernemental politique mm-hmm. ku ci nekk mu jox la li nga war a occuper mm-hmm. juboo ci ak sa Abdou Diouf en tant que président futur président mm-hmm. et c'est comme ça qu'ils ont géré le pouvoir kon pour yow sa leader noonu la nar a def invraisemblablement te man j'en ai discuté avec certains J'en ai avec certains Parce pour lui rendre la tâche facile. il parle toujours de l'union, d'aller ensemble, que bu bu coalition bi il en a une part de responsabilité. waaw waaw. mënoo maintenir une coalition au pouvoir pendant plus de douze ans. nga dem ba à la veille d'une élection deux mille vingt quatre la nga investir lépp yàqu na. moo tax il a intérêt à ce que coalition bi continue nekk bloc. Mhm. man certaines personnes yi ma ci jot a waxal. c'est ce scénario Senghor Diouf. Mhm. laa leen tegal et ils sont pas contre. et ça rejoint li nga doon wax léegi Pape Moussa. en vérité en vérité les gens ils veulent juste bu fekkente ne c'est Adja qui sera présidente du Sénégal dañoo bugg accompagner Adja avec des responsabilités. c'est ça mhm. c'est ça. Mhm. ah moo moo moo andi càll càll beeg. si très tôt Adja accepte. que Sori Kaba l'accompagne et que Sori Kaba occupe je ne sais pas tel ministère Sori Kaba va mouiller le maillot pour Adja. c'est aussi simple que bonjour. je vais vous présenter ah, alors après Adja su continuer peut-être ak DG. Euh, benn candidat bu ko amee. très très rapidement. ñu ñu changé jeex na président Macky Sall. moo tax nag schéma bi pour exclure tey la samedi <laughs> euh, l'exemple l'exemple de Diouf Senghor. c'est tellement pertinent. Euh, bul fàtte ne juste après l'arrivée de Diouf dafa andi CREI. parce que amul once de légitimité ci parti bi amul once de légitimité au niveau national léegi créé bi c'était pour xeex mais président Macky Sall maa la ko wax tey la samedi mm-hmm. amul benn candidat parce que xam na ne élection bi kenn mënu ko gagner premier tour mais c'est ouvert c'est très léegi deuxième tour président Macky Sall tas bi ma la wax ci benn bokk yaakaar mm-hmm. moom moo koy tasal boppam kenn ah. mënul wax ba président Macky am benn candidat am benn idée bu ko defee moom mooy kooku noonu bu ñàkkee ñàkk na il va casser ses œufs dans toutes les omelettes bu ñu demee deuxième tour la affaire yi di di décidé wu. mu rassemble ñëpp euh, Mohamed Boun Abdallah Dionne wala Amadou Ba et eh, John Boun Dionne moom a gën a leer. Mhm. mais Abdoulaye Daouda Diallo candidat la bu yàgg. et il a reçu la bénédiction du chef. man ma joxe tur <laughs> doo joxe tur de alors Tonton peut-être euh, peut-être ñu avancer ak euh, sujet peut-être sur Ousmane Sonko. effectivement sunu sunu sunu deuxième thème ma bàyyi la de de de. waaw dañuy des ak yow rek ak ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko alors tey. tey nag euh, la ñi nga xamante ne ñoom ñoo waa PASTEF la tey la ñu jëloon décision euh, investir ko foofu ca euh, Guédiawaye stade Alassane Alassane bu ba ca. Ah, ah, Amadou Amadou Barry <laughs> Barry ba ca Guédiawaye mais malheureusement voilà ça ne s'est pas fait et gis nañ ni que la veille démb ci guddi aussi def na benn génn na def benn déclaration wax ak askan wi ba wax ni que voilà c'est dinañ ko reporter ba beneen yoon mais mhm. quand même joxe après na ne nañu def li nga xamante ne moom mooy concert de euh, casserole nañ ko def euh, képp ku yeewu na nga sol lu rouge wala nga takk lu rouge pour wane li nga xamante ne mooy euh, d'accord ci tout ça noo gisee sorti Ousmane Sonko ak son avenir alors man je pense que pour la première fois mm-hmm. ma ma ma ma apprécier quelque chose bu mu wax mm-hmm. parce que bras de fer bi bu ko defoon mu forcer braver l'interdiction mhm. xëj na njariñ du ci juddu mais coono moo ciy juddu te comme nangu na moom ak i ditam mhm. ñu reporté ko loolu c'est une décision très sage ñu ngi ko ciy remercier ñu ngi ko ciy féliciter mais damay dem plus loin bu mu waxati mukk ne bu lii amul lii dina fi am ci musiba ak balaa loolu mooy indi ay mhm. loolu mooy tax ñu naan dafa jiitu paaka ci mbaram parce que bu ci dialogue jógee rek nekkatuñ ci chant démocratique on est dans la pensée unique ou on est dans le centralisme démocratique ou bien on est dans la dictature moo tax dialogue il faut muy am te dialogue mënuloo koo bëgg namm yow di ko woote wala nga am yéene woote ko alors que à priori génnee nga sa sabre ne bu lii amul damay xeex c'est pas un élément de bravoure wax naa ko léegi le pouvoir ne peut pas tirer sa sa sa substance de la haine mais de la liberté et de la vérité. moom il parle de haine. en à son endroit. mais loolu yëpp lu lu ñu mën a négocier la parce que nag Adja dinaa la bett tey man je ne suis pas contre que mu nekk candidat. xam nga li tax ah, Ousmane Sonko waaw xam nga li tax. Hmm. parce que dama bëgg pour qu'il revienne à des proportions raisonnables parce que bu ñu demoon tey élection yàlla def ki se classe troisième ou cinquième dina xam exactement ne réew mi contrairement ak li mu foog nekkul. moom nee na la le jour du 25 euh, février le le soir bëgg la rek mooy moom mooy nekk les les 43 candidats yi nga énuméré fii tout à l'heure mhm. ku ci nekk ci ñoom loolu lay wax dans son discours mhm. def liggéey bi ma def sénégalais fi ñu ma teg programme bi ma am man maay gagné le cinq ku ci nekk loolu ngay wax eh oui cela va de soi mhm. mais réalité politique beneen affaire la amoon na ay jamono ñu ne migration irrégulière bi les jeunes jëlatuñu les pirogues jëlatuñu gaal gi parce que tout simplement dañuy xaar 2025 pour voter mhm. pour lui on ne pas encore en 2025 les jeunes continuent à partir ça veut dire que xaaruñu ko mun a andiwaatee Ousmane Sonko ci ci waaw loolu nag c'est une autre parce que am na délit bu nekk ci effectivement c'est une autre question je suis également partisan de l'application de la loi mhm. doyen Assane wax ne ko te ànd naa ci ak moom un état c'est de l'autorité mhm. te nag l'autorité de la chose jugée c'est une réalité man jàpp naa ni tey les décisions de justice dañ leen war a appliquer mhm. mais dialogue bi mun na tax ba mu nekk candidat s'il l'accepte parce que le cas Khalifa le cas Karim est une illustration mhm. te dès lors que dans la majorité on dialogue pour trouver un candidat dans l'opposition on dialogue pour uniformiser leur action mais opposition ak pouvoir waruñu am rupture ñoom aussi dañu war a entretenir un dialogue et le président lors du discours du 3 la main n'ont qu'à la saisir moom tey bu ma doon moom autorité de la chose jugée ñu appliquer les décisions de justice malgré tout je vais demander à rencontrer le président Macky Sall comme nekkatul candidat mhm. il va organiser des élections ma dem seeti ko na ko ñu fexe ba ñu am ay organiser ay élections yu paisible loolu mooy sa ndam mooy sama ndam mooy ndamu démocrate yépp mhm. ñu xool ku ci nekk lan nga ci war a mën a andi en terme de contribution loolu mooy tey li réew mi soxla et voilà la grandeur d'un homme mais booy génnee sabre jàpp ne ñun tey dinañu wàcc ci champ de bataille di xeex di reyante suñu biir je ne pense pas qu'on le fera Turando. Mhm. ma bàyyi la peut-être ak Pape Moussa il nous reste euh, dix dix minutes. Mhm. Euh, alors euh, Pape Moussa yow spécialiste nga en communication tey nan nga jàngate li nga xamante ne moom mooy déclaration bu Ousmane Sonko par par exemple par rapport ak li directeur di wax le fait que muy def yenn menaces yi lii su amul dinaa lii donc aujourd'hui ak fu ñu toll ak situation bi est-ce que c'est vraiment position wala posture bi nga xamante tey war war na ko war na ko jël est-ce que euh, tey war na topp comme euh, directeur lu mu ko waxee war a dem seeti le président waxtaan ak moom xool comment faire pour euh, organiser des élections pour que mu mën cee bokk. Mhm. Adja Biteye bi mu koy relancé la ma ay reetaan jàpp mu ne ko. Mhm. naka la def ba Ousmane Sonko dellu si waat ci làng bi. Mhm. mais gars yi Ousmane Sonko ngi ci làng bi. lan moo tere Ousmane Sonko bokk jamono ji dafa am. il a il est éligible parce ñu xam ne la décision kon fi mu toll nii présomption d'innocence lay demee digganteem ak ma Mbaye Niang mhm. beneen bi beneen bi tamit moo gën a yomb ndax expliqué naa ko fi keroog ma ne s'il se constitue mhm. wala euh, suñu ko jàppijee la procédure dañ koy reprendre sur les mêmes formes maanaam dañ koy bàyyi en liberté mhm. donc sa candidature elle est intacte il li li li garaaw ci li sori euh, wax mooy nañ dem dialogue ji pour bokk mais ay la yéwén Sénégal ba wala boog ban Sénégal lañ nekk maanaam li valider candidature mooy wax ak président Macky Sall léegi. foofu lañ bëgg a yemal Sénégal quoi pour nga bokk demal waxtaan ak Macky Sall. déedéet pour nga bokk da ngay remplir les critères yi nga xamante ne loi bi moom la wax. te fii ñu toll nii loi bi li mu wax moom mooy Ousmane Sonko day bokk kon ku bokk foog nga waxtaan yi ak moom. comme si non mais le par rapport à du tout pas du tout Adja pas du tout defal nank rek ma ñëw. Mm. parce que li ma wax dafa leer et c'est dama bi. et il a osé aussi défier la justice. doucement euh, doucement loolu aussi il faut que ñu wax ko. doucement doucement dafa faisons la la décision bi ko wóoree ak Mame Mbaye Niang mi ngi suspensif devant la cour suprême pour ku leen ne cour suprême du ñëw casser décision bi. c'est possible donc kon pourquoi ci loo xamante ne def na recours et le recours bu nekk est suspensif en matière pénale nga jàpp ne recours boobu noonu euh, par force ci beneen carte la war a féetee kon actuellement où on parle Ousmane Sonko c'est ça la réalité te bu dee même bu dul candidat war nañoo toll ci Sénégal boo xamante ne pour nga doon candidat foog nga waxtaan ak président bi loolu foofu la Sénégal war a toll mais candidat du ma moo euh, du président moo koy désigner ce n'est pas le président qui désigne kuy doon candidat ak ku warata doon candidat parce que en 2016 Khalifa Sall na en 2017 Khalifa Sall na en 2018 Khalifa Sall na teewul en bañ ko war a écarté dañ ko écarté d'accord kon bokk ci dialogue garantiru la euh, participation. mais fi ñu toll nii situation moo moo moo tax may ñëw parce que dañu ne interdit nañ leen seen congrès d'investiture mhm. ba pare avec des arguments aussi séduisants que fallacieuses. waaw yow dégg naa la nga ne voie publique. voie publique mais espace espa euh, stade loolu voie publique la. endroit fermé mais passon sur ça supposons que day troubler l'ordre public ñi nga xamante ne danoo dem ba palais ressembler wu fa di tàccu. defuñu demande d'autorisation informé wuñu kenn te pourtant palais la ñu taxaw di tàccu léegi ki nga xamante ne moom palais sañ na fa taxaw sans autorisation sans lettre d'information nga ne ku war a dugg biir stade Amadou bari Guèye waaye waru fa dugg loolu. mais palais dispersé nañ leen quand même. non non mais doucement non non Adja sorti et les a tendu la main quand même le président est sorti ne la jërëjëf ci li ngeen def alors que la l'arrêté Ousmane Ngom est devant nous alors que la constitution elle président dafa génn sargal leen ne leen jërë ngeen jëf. mais c'est pas la première fois nit ñi aussi. mais ce n'est pas la première mais est-ce que ça doit être ce n'est pas la première fois ça doit être une violation flagrante de la loi au moment où bu doon Pastef la ba ca Guédiawaye nga ne ko doo ko fi defee. deux poids deux mesures ñaata sénégalais moo fi ne. d'accord nañ waxante les choses telles qu'elles sont Ousmane Sonko ak tey jii nii candidature am. danoo jàpp ne même dialogue bii Sori di wax ñoom nañu naka nga yow bi bi bi ngay invité le DG Sori Kaba wax nga ko ne DG kaa invité la mais boo génnee CAA wax nga ko loolu. boo génnee boo génnee CAA ni ñu invité Ousmane Sonko ni ñu invité l' opposition ci dialogue bi mais quand waroon na mën a am un minimum de décence boo xamante ne euh, ni ñuy de mais nañ dialogué si ku génn CAA. ku demul yaa xam ku dem nangam nangam après ñëw ci biir dialogue bi ñu naan gëmal dóor kajil fii nangam mi c'est-à-dire euh, en un moment donné il faut ñu xam ni. Mhm. Sénégal même les membres de Benno Bokk Yaakaar et je pense que Sori Kaba ak niveau de responsabilité bi ma ko xamee il sera très gêné de gis ñuy éliminer des candidatures parce que même bu dee ñaari Sénégalais ñoo ko ci wóolu. mais nañ bàyyi volonté boobu exprimer wu ci euh, à travers les urnes. les urnes jàpp naa aussi que ni euh, actuellement peut-être que moom. Mhm. ci radicalité bi mu ne. parce que Ousmane Sonko est radical. Ouais. parfois. Mhm. day wax mais euh, Adja Assou boo xool loolu noonu saa yi tama du ko ëpp bu Ousmane Sonko li muy wax chaque jour. Mhm. saa yu waxee def na infraction. chaque jour. mais pourtant mu ngi fële tëdd teg na tànkam di limi ay weewa. Mhm. kenn jàpp ko ça rejoint li doyen Assane doon wax sànq. loi. efficacité mooy l'effet dissuasif. c'est-à-dire euh, la responsabilité pénale bu ñu ne ku def nii ñu daan la nangam. pour dissuader nit ñi di def la. mais bu dee constitution day taxaw nga ne man constitution nee na bokkuma. waaw waaye pour ma respecter boobu constitution da ma koy ñaan. doo leen yem si ñaan ma ko da ngeen ma koy ñaan ci njëkk. ci njëkk te pourtant yaa wax ne bokkoo de. <laughs> te candidat moo ko après après vous aurez le temps très rapidement. nga nga nga bu fekkee ne peut-être vous vous êtes pas compris avec avec ak ak aussi peut-être téléspectateurs yi ñuy ñuy ñuy seetaan alors très rapidement. Euh, ñu ñëw ci ci Alaaji Assane mm-hmm. yow tamit suivre nga démb le discours de euh, ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko quand même na <laughs> franchement calmé na jeu bi mm-hmm. euh, wax na ne nañu defaat beneen façon de position mm-hmm. beneen façon de manifestation que peut-être beaucoup de Sénégalais ont ont ont ont ont salué pour yow ba léegi mu ngi ci dynamique parce que sànq DG mi ngi koy wax de ce dialogue là avec avec le chef de l'État Euh, ñaari ñaari ñaari mbir laa la retenir maanaam bàyyi xel bu baax ci discours bi ñaar benn bi dañ koy dañ ko ci félicité mooy bi mu ne ne gars yi dal mm. teggi seen tànk mm. <coughs> lu jëm ci investiture bi dinañ ko def bëgg parce que clairement bëggul problème am mm-hmm. alors euh, beneen bi nag la jëkk a wax boobu mooy bu ngeen foogee ni Macky Sall eh, li mu bàyyi troisième candidature coobareem la non parce que pression bi ko Pastef teg la ak geneen ak geneen n'est-ce pas et bu leen bàyyi bu leen bàyyi bu leen bàyyi ça veut dire bu tax bu leen bàyyi pression bi ci moom maanaam bu leen yox yoxi ci leen mhm. maanaam en quelque sorte continuer leen résistance bi mhm. continuer leen mobilisation bi mm-hmm. loolu su feeñ na ci biir biir biir discours lu tax loolu parce que panique enfin waxin la dafa dafa am benn njaaxare bu ko anime ah oui oui oui c'est clair njaaxare bi ko animé mooy njaaxare bañ a nekk candidat mu ngi ci njaaxare bañ a nekk candidat te li tax d'accord monsieur li Pa Moussa wax sur son éligibilité que il est éligible mous pas Moussa dafa wax li war a am mhm. mais waxul li am li am mooy lan le gars effectivement bu constitué woon prisonnier dañuy reprendre procès bi buñ ko arrêté dañuy reprendre procès bi n'est-ce pas pas Moussa loolu nga wax mhm. mais loolu dara amu dañ ko maintenir dans une situation intermédiaire. Mhm. en suspense exprès. en suspense loolu mooy li am. li war a am. ba pare ils l'ont fait exprès. bien sûr d' accord. non non li war a am ak li am bokkul. bokkul d' accord. li Pape Moussa wax moo war a am mais li li am du loolu mooy dañ ko maintenir dans une situation d' impasse. bu leen fàtte bu leen fàtte contexte su Karim Wade. Mhm. fan nga mus a gis Sénégal dans la loi sénégalaise ñuy gracier nit mu am attestation de élargissement levée de crou n'est-ce pas il est libre. Mm-hmm. ñu exilé ko loolu ci ban la. waa ñoom nee ko def wala ma bokkoo. ah dem. Ah, procureur Qatar lu fi doon def. ba baneen bi. <laughs> baneen bi internet bi mooy blocus bi am kër ki cité kër góor gi ci ban la. Mm-hmm. léegi nag Sonko wax na ko si biir discours am. ak conséquences yi ah, wax na ba wax doomam boo. xamante ne wax na ko démb non yooyu day kii yërëm toog yooyu yooyu moom day yërëm. <laughs> yooyu moom ay yërëm la rek. mais ah, quand même ñu <laughs> sensibilité gars yi. ah ñu ngi mais bu ñu bu ñu analyser froidement mm, wax na ko il a moom mu ngi en prison. waay waay c'est-à-dire que mu ngi purger sa peine. Mm-hmm. dañ ko maintenir o blocus te sax peine bi jiitu na sax la condamnation. mais na lu mu junj après après bi de. Euh, peine bi bi jiitu na la condamnation. peine bi mu ngi am depuis la caravane ñu nangu portable am effectivement loolu prisonnier lañ koy def waxoon naa ko fii non nangu portable nangu ordinateur eh ni kenn du dugg kenn mais effectivement mu ngi prison wax na ko tey en réalité de euh, état bi xam na ni bu ko arrêté du ko arrangé. Mm-hmm. parce que bu ko arrêté la la le verdict devient nul. je, je suis d'accord. il est éligible. Mm-hmm. Mm-hmm. mais tant qu'il la condamnation ferme de deux ans. il n'est pas éligible il n'est pas éligible. na yóbbu boppam. mais nu mu yóbboo boppam yow yow yow yow. non non dix jours yi passe na. déedéet def nañ nank rek. Mm. attention. Mm. waxuñ na la yóbbu boppam bi dix jours la. Mm. bon je cite l' article. à tout moment mën na yóbbu. 307 la. mais naka lay yóbboo boppam ci blocus bi nekk. autour euh, de sa de sa maison de sa bon article bi ñu xool la la daf ne les contumax s'ils viennent à être arrêtés. Mm-hmm. première condition ou s'ils se constituent waxuñu constitue prisonnier si s'ils se constituent kese. Mm-hmm. l' arrêt de condamnation est anéanti de plein droit. waaw mais constitue bi lan la. xam nga buñ ne s'ils se constituent prisonnier. prisonnier la déedéet. moo tax ma bëgg a yeggali li ci des ci phrase bi pour nga mën a comprendre. oui l'arrêt de condamnation est anéanti de plein droit il sera rejugé sur les mêmes formes ordinaires looloo tax mënoo wax prisonnier par force parce que bu ñu nee sur les mêmes formes ordinaires la forme précédente. l'accusé n'était pas en prison. mais est-ce que moom mun na dem constitué wu ci condition yi ñu ko teg. mais mais mais benn genre prison dorée bi ñu ko dugal. léegi la dernière phrase de l'article 307. à moins que le contumax. Mm -hmm. de dix jours. à compter de la Constitution. à compter de la Constitution. Mhm. déclare expressément acquiescer sa condamnation. maanaam kon 10 jours yi mu ngi commencé jour bi ñu ko jàppee wala jour bi mu constitué. constitué mhm. foofu la 10 jours bi di tàmbalee. léegi bu ne d' accord naa condamnation bi nag à foofu dañ koy may mu def appel bu ne d' accord ma ci la ñuy rejuger sur les mêmes formes kon actuellement Ousmane Sonko bu bàyyee ba ne suba la élection yi mu dem constitué mais arrêt day nul. d'accord loolu nga expliqué yooyu yëpp ay hypothèse la non non non constitué moom mënal na hypothèse la maanaam lii man na ne lii mën na ne mais bokkul ak li ne mais continuer li ne mhm. mooy il loo maintenu dans une situation intermédiaire boo xam ni sa peine est en train d'être purgée mhm. ah purgée bi de yomb na te waa ji sa biir kër toog di ah, la preuve te waa ji wax na ko tey il wax na ko vendredi mais ce n'est pas ce qu'il a dit est vrai la preuve te waa ji mënul moom du constitué du mos a constitué parce que aveu aveu de culpabilité boobu du ko defar kenn. pourtant wax na ko tey. parce que fierté bi fierté am dépassé na loolu. état ñoom ñoo ko gën a rakkaaju foofu duñ ko mos a ah, pour yow kon. Ah. moom il a dit après les. Euh, dañ koy bàyyi noonu rek après examen yi nga xam na li mu wax. na li mu wax dañ koy arrêté. ah dañ koy arrêté moom si boppam nee na la am na lu ñuy préparé après examen yi na ne après examen dañ koy arrêté. dañ ko arrêté dinañ ko arrêté Pa Moussa il devient éligible. ko arrêté wul day constitué boppam. du constitué nag. fii ak Sonko. non mais bu lay jox exemple ci discours am nee na man booy woon sama bopp mu mu mu mu continuer très ñoom tamit lii moo leen arrangé. bu ñu ko arrêté reprendre procès bi mu éligible. Mm-hmm. donc arrangé wu leen. nañu bàyyi que statu quo déggoo li ma gisoo Karim. Mm-hmm. Karim ni mu def Qatar mos ngaa gis euh, exil depuis Maam Bamba amatul exil suñu suñu législation. <laughs> c'est clair n'est-ce pas. Euh, exil wuñ ko. Euh, ki ki def loolu Karim dina bàyyi si te kër góor gi. Mm-hmm. <laughs> da koy blocus. blocus ko foofu bàyyi foofu dégg nga affaire yi di déroulé nga dem conseil constitutionnel ñun la waroo nekk candidat. te Sonko loolu lay ragal mu ni gars yi bu ngeen xaaree janvier lañ koy wax. Mhm. conseil constitutionnel bi janvier lay décidé. donc na ngeen continuer mobilisation bi. Mhm. moo moom moom moo tax ma ni la au début lan laa la wax dama leen dafa am njaaxare. Mhm. il parle par panique njaaxare par rapport à sa condamnation. à sa à parce que daf ni condamné nañ ma. première condamnation des na déjà la la cassation ci wàllu. Mame Mbaye Niang on ne sait pas foofu aussi fan lay senn. mais dans waa PASTEF ak seen leader xam nañ xam nañ pertinemment que candidature Ousmane Sonko c' est compromis mhm. ñoom ñoo la gën a xam bu fekkee dañu wax la la rek. te loolu situation investiture bii ñuy gis nii euh, c' est pas nouveau dundoon nañ ko si Karim Wade oui ou non. <laughs> Karim bàyyi woon nañ ko au moins congrès am. non bàyyi bien sûr. la particularité de Sonko mooy bu mu am. waaw non fii parce que il a parce que sànq wax nga nga ni nga ni. il a menacé mais n'a pas menacé. non non non da, non non dama lay. introduction demande de je, je poursuis mon mais nit ñi dañuy regrouper pour dugg foofu. regroupe bu ñu paree tamit dañuy regrouper waat génn foofu. Mhm. <laughs> bu dul fàtte loolu. wuyu non. bi am par benn euh, non. la preuve fii bu làmb amee. papa may ko s'il te plaît. bu làmb amee avancé très làmb rek laa de waxuma euh, politique de. ñi génnal xool. ñu bëri dañuy tëj ñuy jaay caaxaan dañuy daw ñëppay eh ñëppay. loolu le gouverneur là li mu wax laa tout tout n'est pas faux man nag si suis d'accord que parti bu ne am nga droit def sa congrès. Mhm. man nag c'est mon principe de base. mais le gouverneur li mu wax c'est pas faux. Mhm. gis nga wax na ko sànq euh, du moins vendredi bi. Mhm. Euh, Pastef mu ni. le leader du PASTEF euh, Ousmane Sonko mu ni wax waxi baal ba wax sax euh, joxe ay référence ci temps yenent bi xam naa bi ñu xam Hamza la doon wax mm-hmm. Mm-hmm. et tout sax loolu histoire bi ñu jàng nekk ñun ñëpp mm-hmm. mais problème bi mooy dafa jëkkee dëgëral te nee na boobu ci la continuer di wax ba léegi mais dëgëral boobu boo ko defee déggoo waxoon naa la RDC république démocratique la lu tax Martin Fayulu falawul Martin Faylu moo gañoon élection yi mm. ñoom Ibrahima Sène ak yëpp wax bind nañ ci mm. Martin Faylu moo woon élection yi mais Kabila dafa joué serré pour ci ceci di mën a falu mm. parce que Martin Faylu da leen menacé dafa radical en disant que yéen ay corrompus ngeen. te ba ma ñëw. Hmm. boo leen waxee loolu. mais discours démbam bi moom xaw na xaw na lâché un peu. xaw na lâché mais wax na gars yi nii gis nga bu ngeen fii nelaw. Mhm. yaakaar ne nekkuma kaso maa ngi kaso. oui ou non de loolu la. d' accord d' accord c' est le c' est message qu'il a lancé à ses mooy mobiliser vous. d' accord mooy mooy mobiliser vous alors. sortir euh, euh, malheureusement Maodo me dit qu'on a donc débordé nañ. Mhm. Euh, directeur da nga koy waare rek ak kàddu gu mujj gi. Mhm. ak euh, pléthore de de candidats yi ak peut bu fekkee danga bëgg a repréciser un tout petit peu. Mhm. li nga xamante ne moom mooy sànq kaddu kaddu yi nga yëkkati par rapport ak euh, dialogue bi. ndax Pape ni mu la interpellé aussi am na sénégalais yoo xam ne peut-être bi nga waxee noonu la ñu xalaatee très rapidement. tout à fait surtout surtout bi mu waxee que. que c'est le président moom moo war di valider les candidatures je pense que loolu waxuma ko benn yoon Euh, mais que dama jàpp ni dans un pays où on a une démocratie d'opinion le principe du dialogue moo war a nekk la règle te ci dialogue bi amul sujet tabu on peut aborder tous les sujets li mu wax ci discours am yëpp ça l'objet d'un dialogue te kilifa wax na ko léegi boo ko mettre en demeure te moom muy incarner l'autorité de l'État il ne peut qu'incarner l'autorité de l'État point et là ça devient plus grave parce que le président va organiser les élections parce que lui il n'est pas candidat donc il n'a plus intérêt à ce que le pays s'enflamme il n'a plus intérêt qu'il y ait des troubles il n'a plus intérêt que les élections soient irrégulières moom bu fekkee il a les mêmes motivations que le président dialogue bi mun na nekk et dans le dialogue tout est possible on peut évoquer toutes les questions et damay illustrer mon propos quand le le le le président le ministre Djiboka avant que muy dugg dans le gouvernement du président Wade en 2004. <laughs> de 2002 en 2004 il était dans l'opposition une pure opposition bu metti hmm. un jour il a demandé lui-même à rencontrer le président Wade pour instaurer un dialogue ak moom. DG Wolof. waxtaan ci ay points yoo xamante ne gisoon nañu démocratie était en train de prendre des c'est ça la responsabilité man bi may wax damay wax en connaissance de cause ak l'intérêt de la nation je ne parle pas pour Macky je ne parle pas contre Sonko ni pour Sonko contre Macky l'intérêt de la nation te ku ci nekk ci ñun nag motivation boobu nga am maintenant bu fekkente ne à l'issue du dialogue tënk nañ fa ay points yu bari ba moom mu concerné ko et que loolu ça soit soumis à l'ensemble des acteurs du dialogue te kenn gisu ci objection mais c'est pas le Encore une fois de plus, pas Moussa. Ce qui s'est passé au palais, non, ce n'est pas des militants qui ont été convoyés là-bas. C'est une mobilisation spontanée de citoyens qui viennent parce qu'ils ont mal, tout doucement, comme ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Il faut demander autorisation. Spontanément, des gens qui viennent, qui te disent comme ça, d'un geste de main, mm-hmm. il faut une autorisation pour ça. Non, quand même, on n'a pas besoin de ça. Maintenant, sur les pléthores de candidats, Adja quelques secondes. euh, je pense que je pense que tey euh, le, le président Macky inspire quoi qu'on dise. Mm, bien sûr. il a un parcours boo xamante ne. Mm. d'un Sénégalais ordinaire. Mm-hmm. Euh, de mm-hmm. famille modeste. qui a fait ses études ici. Mm-hmm. qui est devenu président de la République. ça inspire tout le monde. tout le monde donc je pense que loolu c'est quelque chose boo xamante ne on n'a même pas besoin de le démontrer. donc que nañu chercher raison garder rek. parce que tey pléthore de candidats yi ni muy demee nii je pense qu'on risque d'arriver à cent candidats. waaw hmm? ah, mais il y a peut-être. qui vont peut-être faire le filtre. oui oui je sais sera fait peut-être à ce di leen gërëm di leen sant di gërëm di sant tous les téléspectateurs vraiment. Mm-hmm. encore une fois de plus mbégte bu mag. ñëw ci plateau Kër Jaraaf. Mhm. et je réclame toujours moom Kër Jaraaf à Sina. <laughs> ah mais Ayaas moom mooy moom mooy borom kër gi. Ah, voilà voilà ñu ko bëggoon fàtte. il faut ñu dem si ah il faut. wax nga ko de. il faut de l'engagement a été pris ah. prenez note ah non non on va on va le faire. l'engagement a été pris ah oui oui euh, <laughs> Papis mi ñuy dégg ak. MNF kon jeex na. non Papis du dem non non. lu ñuy wax. wax Mbine Jaraaf. Mbine ah, Jaraaf <laughs> Papis du dem. Pape Papis très rapidement sa kàddu gu mujj ak pléthore bi lan moo ci caché wu derrière ci quelques hmm. secondes rek effectivement il a raison parce que mi ngi commencé bëri na 43 c'est c'est beaucoup. oui oui il a raison de dire que le président Macky Sall inspire. Euh, inspire ci ne démocratie Sénégal toll na foo xamante ne doomu jaaykatu gerte bi mën na doon tey président de la République. Mm-hmm. mais aussi ça n'inspire pas dans la mesure où il un parcours. chef de service directeur général ministre de l'intérieur ministre des collectivités locales ministre de l'hydraulique ministre de l'intérieur premier ministre président assemblée nationale président de la république yow nga yegg si nii rek kenn xamul rek nga ne président de la république pour man c'est am na candidature yoo xamante ne fantasme la eh parce que boo ne déclaré candidature euh, la presse va faire ruer nga ñëw taxaw wax se faire connaître pour man taf yëngal yooyu la et c'est mm-hmm. et j'étais d'accord bien avant. Mhm. parce que parrainage bi gars yi bu ñu fàtte ni ci référendum 2016 bi la bokkoon. Mhm. le président Macky Sall l'avait retiré. Mhm. bi ñu demee 2017 on s'est retrouvé avec 47 listes ci élection législative. ba mujj gi violer code électoral pour mën a violer voter lañ defoon. donc kon dama jàpp ne mesure la boo xamante ne. le parrainage du ko violé dugal ay dispositions parce que boo boo bu code bi ne da war a jël candidat yëpp. te loolu dialogue la consensus. consensus suis d'accord avec le principe du dialogue. Ousmane Sonko sax waxul ne du dialogue. Mhm. Ousmane Sonko dafa ne du dialogue paaka ci put. Mhm. mais moom daf waxul ne du dialogue de. et puis on espère que ñoom ñaar ñëpp dinañu am beneen dépassement. non non mënu ñàkk ne serait que pour l'intérêt du Sénégal. ñu toog waxtaan parce que war nañu toog waxtaan. Euh, donc donc donc aussi ñu ngi dem ci élection boo xamante ne wax dëgg yàlla particularité mooy ki koy organiser maanaam élection bi amul Macky na dem élection bi amul maanaam programme ngay teg eh au moins loo moins boobu dina permettre nag ñu instaurer sénégalais dañuy mm-hmm. yàgg di éliminer fii amul koy éliminer da ngay élire et le Sénégal va élire pour la première fois jàpp naa ne yeneen alternance yi fi amoon yëpp c'était une élimination Diouf Wade aujourd'hui mm-hmm. euh, ce sera une élection eh ñu jàpp ne Sénégal dina fa jaar dugg ci yoonu naataange di leen gërëm bu baax plaisir. Euh, te da ngay nekk kër jaraaf da ngay jàngaale. avec euh, voilà euh, les anecdotes du doyen Alaaji Assane mais aussi la pertinence des questions. mais surtout l'élévation de Sori nga xamante ne yàgg nañu koy suivre. xam la niveau de responsabilité mais la maturité démocratique doomu siin la c'est normal. ñoom foog naa ne suñu armée. on ne tue on ne déshonore pas. Mhm. loolu ci Buur Sine la jóge tubaab bi dañ ko doon acquérir di dugal ay armes yoo xam ne c'est non conventionnel. Mhm. muy continuer di avancer ci seen kaw. Mhm. Faidherbe ne arrêté. on les tue mais on ne les déshonoure pas loolu noonu sin sin yi ñoo ko moom ah. te armée jël na ko <laughs> mais waa Saloum laa na waa Saloum c'est bon c'est bon ñu koy fàttali sunu sunu rakk yi ak sunu doom Alaaji Asan kàddu gu mujj gi ak euh, quelques secondes rek réflexion bi kàddu gu mujj gi di encourager Sénégalais bi très rapide pléthore bi c'est une vitalité démocratique je pense que c'est important filtre yi am na donc du ñëpp ñooy jàll mais ñu ne ku ne nag mën nga wax wane sa bëgg-bëgg mhm. c'est important mhm. euh, voilà mais ku ñu téye aussi nga xam ni peut-être que jàlloo parce que y a des filtres quand même ku ku jàll aussi sénégalais ñooy xam kan la ñuy fal ou pas je pense que yooyu vitalité la mhm. je pense c'est important loolu mooy aussi suñu suñu dynamisme démocratique l'essentiel nañ garder jàmm ji il y a des équations à résoudre des na il faut que ñu am génie dëgg après euh, Pastef il faut ñu am génie pour dépasser cette situation. il faut pas que syndrome PDS bi jàpp leen ba ñu ñàkk candidature hein, pour les Et en même temps aussi au niveau du président Macky Sall na première équation bi. Mhm. mais des na deuxième volet équation bi deuxième inconnu bi mooy le cas. Euh, des candidats là yi am problème. nan lay surmonter ça par rapport à la préservation de la paix. d'accord xale yi nag ñu bàyyi buruxlu con euh, ñuy créer ay trouble ñu buruxlu di topp di war ay gaal. Mhm, parce que yooyu ay xaru la. effectivement benn teraanga àdduna jaru ko. njariñ loo fekkee. mag ñi de loolu la ñu daan jàngal. merci beaucoup merci. <laughs> <laughs> jërëjëf jërëjëf euh, Alaaji Assane ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax on se dans Kër Jaraaf. Tourando yow on te retrouve demain dans euh, Sport sur 7. Mhm. oui suba kuy koy Daaf euh, moom mooy sélectionneur équipe nationale des moins de vingt ans. Mhm. ak Nathalie Sagna. elle a été plusieurs fois championne d'Afrique ci basket bi. Mhm. Euh, Lions yi dañuy jëm ci afro basket. ñu war a ñëw nag waxtaan pour xool naka la basket Sénégal di delluwaatee fi mu nekkoon ci Afrique. d'accord incha donc le rendez-vous c'est demain à partir de vingt une heures sur la 7 TV. maa ngi lay jaajëfal. Sori di la jaajëfal bu baax a baax Pape Moussa aussi di la jaajëfal. la bu baax a baax exactement <laughs> ba voilà di leen sant di leen gërëm di santaat encore une fois di gërëm euh, téléspectateurs yi euh, encore une fois amuñu seen euh, seen fay équipe technique bi ñoom Modou ñoom Michel ñu kenn voilà ñoom Penda ñu ngi sant di gërëm ñëpp man aussi maa ngi leen di jox rendez-vous comme tous les samedis samedi prochain incha allah à partir de 21 sur la 7TV dans Kër Jaraaf